mbokk yi internet yi ñu ngi leen di nuyu baax a baax am mbégteeg bànneex nekk fii si cité pépinière cité pépinière nag nekk xàll wu xamante ni mi ngi nekk ci xàll wu jëm euh, tali euh, syndicat bi jóg ci jubi Alassane Djigo nekk ci salbanta bi nga xamante ni xeexu yu mag yi yàgg fi am bas bi nga ngi tant bi suñu ginnaaw xeexu bu mag bi ko fi indi mooy treizième édition takkusaanu Oustaz Ibrahima Diarra mu jël takkusaan nag jagleel ko ki nga xamante ni mooy mag mu baax mi nga xamante ni jàmbaaru diine la di Serigne Mansour Sy Djamil ñu ngi taxaw ak tamit kenn ki xamante nii ci tàggatu yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokk di ki nga ni mooy ki nga xamante ni bu taxawee boo ko laajtee macha allah taxawaay bi jekk na ci taxawaay bi ci jekk gi ci taar bi ci wax di dal di El Hadj Maodo nekk tamit si karkat bu mag a mag ci wàllu diine ji nekk tamit soppee Seydina Mohamed Maodo ñu la nuyu baax a baax. jara ñëpp xam na tey ne jëfam la ko yàlla séddee cërëm bu ko woote woon du ko am. fii ci biir Tiwaawan waaw ciru woote day Samba Nday ci misaal cëf-cëf gi ci day cëf-cëfam du yàgg mu fay delul mbay Tiwaawan jara gor su ñépp neewa nan ko taamu xencewewa Seydi Mbay si day roy waay wóor na waa Tiwaawan ah loolu bu ñu ko déggee ngeen xam ne am na lu xew lan moo xew tey ñu ngi fan ñu ngi cité pépinière ah ci programme mu oustaz Diarra ku ko xam rek xam na Maodo Jamil a ah, Serigne Cheikh fa tabarakallahu ñuy woo soppe yi am di jàmm yi ah waa Kiki TV àndanteeg ñun tey ci programme bi parce que yéene couvrir incha allahu rabbi xam naa bu ko defee dañuy jox seex rek fa tabarakallahu man moom bu ci kaname incha allahu rabbi ñun ñoo war a taxawee takkusaan gi incha allah ci takkusaan boobu lañ deseeg yow mu nekk fukkeelu édition ak ñett di treizième édition bi xamante ni sa doomu ndey ku ne oustaz Ibrahima jara tudd tamit Hadj Maodo yéen ñaar seen ànd dafa compatible exactement takkusaan bi bu ñëwee lan nga yëg sak année ginnaaw deux ans yi mu amul ndax Covid 19. waaw oustaz Diarra bu xewlee rek man amatuma benn amatuma benn soxla ndax oustaz jara mooy man maay moom ah, loolu la yàlla dogal yàlla nu boole ndax bu dul dara sax innamal mu'minuuna ixwatun ja fas'aluu bayna axawaykum wa taqullaha laxalakum turhamun ñoo bokk benn buum boo xam ne ci lañ jàpp jëm ci kan jalla jalaaluhu wa asa kamaaluhu moo tax su wootee rek man amatuma benn amatuma benn benn soxla soxlaam mooy sama soxla kon mbokk internet yi Vision ak Kiki TV yi dara du leen ump ci xeexu mag bi xam mooy fukkeelu édition beeg ñett bi ren nag am na ay surprise mag a mag ginnaaw deux ans yu mu amul ndax Covid 19 jaafi 2020 ak 2021 Salam TV ak Kiki TV ànd ak tey ji tant bi nga xamante ni mooy fukkeelu bëccëg ak ñett di treizième édition Oustaz Ibrahima Diarra woote ànd ceeg mbokk taalibe yi ak mbokk jullit yi gan yi mag yi la ñuy xaar ci kalam tuuti incha allah dara yi ba tey ñi ngeek euh, suñu yaay Wuli Mbata nekk tamit mag ci oustaz Ibrahima Diarra yaay booy ma lay nuyu bu baax gëj gise bi am na certes waaye tey dañoo ñëwaat ci beneen xeexu bu mag a mag muy tàkkusaanu oustaz Ibrahima Diarra bi nga xamante ni deux ans ngi amul ndax Covid 19. bii nag bu ren bi mooy treizième édition di bëccëg gu fukki ñetteelu bëccëg ci sa xalaat bu gàtt ci yan kàddu nga yëkkati ak bis bi nga xamante ni ñaari at ko ndax Covid. waaw sant yàlla rek yàlla yàgg na ak jaaw yéen samay doom yu baax ngeen wax dëgg yàlla. waaye Covid bu mu ñëwee muy dogal suñu borom dogal suñu borom bu ñëwee kenn munu si dara waaye bu ko yàlla jeexalee jeex na lii nag sant yàlla la ndax jàng alxuraan ba wàcc ñëw di topp sunna suma Seydina Muhammad salaa sant yàlla la lii day njukkal yàlla suñu borom njukkal Seydina Muhammad njukkal sëñ Babacar si ak sëñ Mansour si borom daara ji moom borom daara ji sax booy xool oustaz tàkkusaan bi moom la ko jaglee di Serigne Mansour Sy Djamil mag mi génn ay taaliba cheikh taaliba cheikh dëgg tey bu ñuy tànt bi xolam dina sedd mais yan kàddu nga yëkkati ci benn yi nekk ci waañ bi ndax gan yi bu ñëwee dinañ kontaan am déet waaw loolu la ñuy ñaan yàlla xam ñun bernde rek lañu xam te boo wootee boo ñëwee da ngaa war a bernde te ku bernde sa xol sedd bu sa xol seddee borom lu muy wut si njàng yàlla may ko ci bernde bi ñaan yàlla gu fi ñëw rek si benn bi yàlla sa xol sedd guy mm-hmm. lu ñu def am ci yéene mm-hmm. ñu lekk seen xol sedd naan du sedd seen xol sedd mm-hmm. ci tàkkusaan bi nag ci tàkkusaan bi ak ki xewwi la bis bi di sarak ngeen bokk ndey ak baay di Oustaz Ibrahima Diarra turam macha allah dépassé na douze communes Pikine yi ñu seetlu maire de la ville bis bi nañ ci teew maire Pikine Est Ouest muy ay Isaaxa Diop Gorgui Ndong ancien maire ak mboolem ñu ngànk Pikine tey jii am nañ accord ak Amadou Diarra Pikine Nord nga gis tamit même opposition bi sax dugal na seen loxo ci bis bi nga jàpp ni daal seen rakk ji est-ce que xam ngeen valeur fu mu toll jamono ji. waaw sant yàlla rek xam nga ndong daar moom boo fa jaaree rek dara jomb la pour nga am ko si àddina boo tarbiyoo wàcce sa wa teg ju jar ku ne xam nañ dafa oyof mm-hmm. mën a communiquer ku nekk. te yaayam tamit liggéey na ko ci kër baayam te lii tamit dara jomb ko waaw di ñaan yàlla rek yàlla may gudd fan a wér mm-hmm. yàlla musal ko si tolof tolof ak ndog mm-hmm. ba fu mu gën a yéene daara tàkkusaan bi mu gën a mag ba yeneen gën a ñëwaat ci barke Seydina Mohamed yéen a ngi koy séntu prochaine édition 2023 ñu ngi naan léegi xajatu cité pépinière Sorano lañ ko bëgg a def ba tey loolu jomb ko mm-hmm. ba tey mën a nekk Sorano bu nekkee Sorano bu si jógee. Mhm. ñu jóge waat Sorano sax dem feneen. dem Grand Théâtre waaw mi ngi noonu. jërëjëf mbokk Salam TV Kiki TV mu nekkoon mag ci oustaz Ibrahima Diarra dafa mel ni tamit suñu suñu tataa lañ koy jël da ngay ñëw mu ñëw waxtaan ceeg ñun ci bis bi euh, ginnaaw bañ jógee ci suñu yaay suñu mag ni tamit suñu suñu jigéen tur bi naka la soxna si. Euh, madame Diagne dañ koy wax Aïda mhm. Diarra. Aïda Diarra. auzu billahi mina sheytaani rajim julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. ñaanal sama yaay gudda fan ak wér mu fekkee suñu lépp ndax lépp mooma di ñaanal suñu pap xam ne moo ñu yar tegte ñu ci siraatal mustaqim jara lu mu am tey c'est grâce à son papa hmm. ndax moo ko yóbbu Tiwaawan mu jàngi wuti xam-xam hmm. ba mën a def tey lii donc suñu waajur yi amuñu seen fay ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. sama paa fu mu tëdd fële ci Dagana yal na ko suuf sedd ak mboolem ñu mu fa fekk ak ñu ko fa fekk ci barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wasallam kon buñ la déggee dafa mel ni jara sa rakk deret la sama rakk deret la ñoo bokk ndey ak baay ak sama mag ji doon wax léegi ulimata kii di suñu mag suñu yaay la man fii laa jàngee mm-hmm. gaynde Fatma moom muy moom a yoroon lépp moom la ak borom këram ak sama bàjjan tamit mm-hmm. xadi jara mooy borom kër gi ñu tette ñu teg ñu ci yoon jàngal ñu yar ak teggin li ñu am tey ji grâce à ñoom sam bàjjen bu baax la bu ñu ñëwee fii daf ñuy tette teg ñu ci yoon jàngal ñu àdduna kon tey ji dagan na fa góor ga tëdd xolam sedd na ti doom ji nga xamante ji day woote diine ba Pikine te da ko war a wuy si tàkkusaan bi macha allah dina kontaan bu baax a baax ndax moom doom yëpp dañoo bëgg ñu jàng góor jigéen ñëpp a jàng kële toonee day wàccee day wàccee kaamel muy Fatou Male Fatou Male ñoo nekkoon ak moom Tiwaawan moo leen yoroon Tiwaawan moom Babacar ak ku ñuy wax Amadou ñi ñett ñu góor ñoo nekkoon Tiwaawan jàng xam-xam ba tey ji ñu mën a am lii yéeg ban kàddu bu mujj ngay tàggoo sa mbokk internet yi nga xam ne jamono ñoo couvrir bi di Salam TV ak mu nekk bis boo xamante ni nag ñoom cofuñu ko wallaay wallaay di leen ñaanal yàlla rek yokk ba yëg ko yàlla dafa leen wér ak tawféex ci barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa li mu am nii nag ndeyam moo ko liggéey suñu yaay dafa liggéey suñu kër pap ah. muñ musul jël ndaba fay ba ñuy juddu ba mu mag ba mu fekkee ay sëtam ba fekkee ay sëtaatam mu muñal suñu papa nag hmm. lu ne dañ na ko foofu musul onk musul baskan soo waxee rek mu ni muñ leen ba yaay li ngay def nii mu ni baax na donc loolu tey mu muñ tey moom la ko yàlla fay ci njabootam bi te des na ñu ngi ñaan yàlla ñu paasal ko mu dem Makka siyaare ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, ta sœur qui parle avec ton cœur moom xol bi mooy wax jamono ji saa si nga xam nga mbokku deret dafa foor mbokku xol dafa foor sànq wuli ma nekk seen yaay tamit nekk seen mag yi bopp nga gis sànq tamit madame Diagne di Aïda Diarra ñëwaat tey waxaat ci rakkam yi nga xamante nii nee na bàyyam fi mu tëdd dagana xolam sedd na waaye tamit muy sàkku ci yàlla suré ji waajurum jigéen bi dem ba dem màkkatal mu karam ci yoonu soatam sax xam jar ci la woote kon mbokk internet yi dara du leen bi nga xamante nii day début à la ak Kiki TV lañ ànd incha allah rabbi maaleykum salaam wa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal di leen baal ñaan yàlla boole ñu jéggal di jiital ci nuyoo bi kilifay koñ bi tabaarakallaahu di imam ak chef de quartier di leen ziyaara baax a di leen ndokkeel tabaarakallaahu di beral nuyoo oustaz Jara bi nga xamante ne moo. woote tey tabaarakallaahu di takkusaanu Seex Alxaaji Mansuur bal xawmi di ñaan yàlla mu def koy at yu jeex ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luñ fi tabbi yonent bi yal yàlla nangu ko yal na ko yàlla defal jàmm defal ko sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba defee ñu sàkku ci mbooloo bi ñëpp ñu bokk jàng fatiha benn peeru salaatul fatihi ñu xat yaa fi ni diwi suñu ziyaara ci Cheikh na Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu bismillah Amen.

yàlla tudd na ko ci yaay xëytu yaay samiyoo akbaaniyoo yaa safiyoo yaa rafiyoo ibn aziizoo yaa يا كريم يلا الخيور يا متين يا عليم ما فاتن النزل والفزعي يا مرحبا لا الفلك يدعو كمن يرتب الحروف من نادي فاتح الدعاء قومي مقتمدا بعلمك الكريم وتمقته بذا المندوب سلي على سيد الميراج سلي على جسد المنهاج وآله وصحبه وتقوى لا

وخديجة وعلي وحارثة بدعوتي وعافية الله نور على نسير وعليها أسري وسلام بدار ونار لدرجة ثم ابن أبي

Good luck.

Yeah.

مطرب الأقلام مطرب الأقلام مطرب الأقلام مطرب الأقلام

لا اله الا الله Bur yàlla kese la bur yàlla kese la bur yàlla kese la bur yàlla kese la bur yàlla kese la amul mbéy amul naaj yàlla kese la yàlla jur kenn te kenn jur ko amul mbéy amul naaj bur bi yàlla kese la yàlla jur kenn te kenn jur ko amul mbéy amul naaj bur bi yàlla kese la. الله واحد الله واحد

علي تجاني محمد غالي من شيخ عمر من مولد ما بكرت ما بكرت ما بكرت ما بكرت ما بكرت وربني كارم وربني كارم وربني كارم ما من خلق ما من خلق ما من خلق ما من خلق

Yeah,

wa sallam moo nu ko jàngal moo ne andilu naasa manazilahum ñoo ngi lay wàcce sa wàccuwaay di la dalal di la xoolee Seydil Haaji Malick radiallahu taala anhu kon ñoo ngi lay nuyu bu baax di la tatagal di la yaatal tabaarakallahu si jotaay bi naka noonu di nuyu sëñ man ndaw mi nga àndal nga xamante ni di sa genn wàlla foo teew ma foo fa tabaarakallahu di ñaan yenn yàlla yàggal ànd gi yenn yàlla dolli sa tabaarakallahu nga xamante ni sunu idol la sunu royukaay la moom sëñ Abdou yal na yàlla barkeel la laa fadda fuuka wala shallat yadaka wala xaamat idaaka barakallahu fiika di nuyu sunu sëriñu bopp ki nga xamante ni sunu bàyyi daf nu ko dénkoon waaye léegi moom léegi dafa bàyyi <laughs> dafa bàyyi njaboot gi muy sëñ Babacar Jara nga xamante ni ca Tiwaawan tabarakallahu sunu bàyyi daf nu ko dénkoon ni ñu ko dénkee woon Jara lu ko raw nan ma ko woon waaye léegi nag moom ah mënatu ko gis fenn <laughs> loolu rek moom si jaaxal <laughs> di ko nuyu tabaarakallaahu sëñ Babacar di la wàccee sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal taxawaay bi yal yàlla dolli sutura bi yal yàlla yaatal xam-xam bi tabaarakallaahu noonu nañuy nuyoo sunu naataango tabaarakallaahu ki nga xam mooy sëriñ Babacar Gaye di ko nuyu di ko wàccee si wàccuwaayam naka noonu di nuyu sëñ Moustapha Sarr tabaarakallaahu di borom xam-xam di ku yàlla baaxee tabaarakallaahu di ko wàcce ci wàccuwaayam di nuyu sañ Mbay ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu mboolem asatis ak ulama yu fi teew yëpp nit ñu baax ñi fi teew ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wàccee seen wàccuwaay di nuyu ñi doon taggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma nuyoo xaaj Maodo tabaarakallaahu mu yóbbaale mbooloo mi yëpp di ñaan yal na yàlla yàggal seen taxawaay yan na yàlla dafa leen ndam ci géewu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñu góor ñi di nuyu jigéen ñi tabaarakallaahu tay nag jara moo aye xam ngeen ni jara ku mos a aye jara mooy lem basang yi baa mu rangale siège waaye tey nag moo aye te yaakaar naa ni kenn du fi jóg lu dul dañu rangale siège yi yan na yàlla barkeel jataay bi yan na yàlla barkeel jataay bi kon programme bi nu muy tëddee rek incha allahu rabbi ci lu gàtt bëgg nañu rek jox bëgg fàllu tabarakallahu mu daal bakk bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu paree ñu jox sëñ baaba mu daal di bàkk daf participation om ci bis bi bu nu paree nag tabarakallahu ñu daal di jàllee la ca topp incha allahu rabbi kon nag dañu bëgg bëgg fàllu daal barkeelu ci bis bi daal di taggal nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafoon na ko daaw mu neex at yi passé yëpp daawoon na teew di tagg yonent yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam tey nag bëgg nañu la mu doon def mu baaxantal ko insha rabbi kon nag bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم يا رحمن يا رحيم رب بما يسرح الأسران قد فجاها بجاي أفضل من لله قد لجها حمد لرب الكريم لا طريق له وصدري اليوم نورا فاتحا ملها محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل به كلام عبد الله الذي أمن مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برها ناجيته من وكرمني أكرمها من وكل من لغمبرها رمان عبد جميع برحمته يغني أن يصرف القرآن نبوخرا وتمد مدغا وترأمي خلقها من جدهم قدما يا مالك الملك يا من جبلك خرج ارحم جميع الورى ردها أو تمالك معه خلف من درر بجاه أرض المن لله قد لجها والتف بنا وخربنا وقربنا وهب لنا حسن غدا يا ربنا وسليا على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم yonen bi laa xam ni ku ko yaakaar daje moom sunu yonen yonen bi laa xam ne ay ko yaakaar awu nga gisee ko محمد رسول الله لا اله الا الله Salam TV ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax ñu ngi nag fii ci euh, cité 1 te suba ak léegi continuer programme bi nga xamante ni. depuis a matin ñu ngi koy dundandoo ak yéen sabab bi nag wara lu ko muy treizième édition takkusaanu a Hadji Mansour Sy Djamil bi nga xamante takkusaan loo xamante ni yaaw sas Ibrahima Diarra moo koy woote sabab bi nag dara wara lu ko muy xeexu mag bu ci diine ndax Covid 19 gis ngeen bi nu mu yàggee jamono ji nag war a dugg jël tamit réaction yi nga xamante ni mooy invité yi kilifa yi ñu ngi fii y'a d'autres surprises yoo xamante ni am na leen fii ngir di mën a passé ak ñun événement religieux bu mag bi nii taaliba Cheikh la moom Oustaz Ibrahima Diarra tey jii nag mbokk yi xarit am na jàmm bi ñëpp teel ko fi ñi war a ñëw waxtaan ci diine ji gën a xamante kan mooy tamit alaaji Mansour Sy Djamil mi nga xamante moom la jagleel takusaan bi moom oustaz a Diarra dina ñëw waaye tamit ay invité d'honneur de marque ñu ngi fii ku ci mel ni ko xamante ni tamit yaakaar naa mooy Sam Mboup soppeeb Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam dégg ngeen ambiance bi am ci lépp dina ci ànd ak Salam TV ak Kiki TV li nga xamante ni mooy li xajul xew ci suba gi bernde yi amoon na fii ay nañ ba suur naan nañ ndox yu sedd ak ay boisson ba gi nag dund nañ ko ci bënd gu neex a neex mu des takusaan gi nag ñu dund ko guddi gi di des mooy joxe bi reer yi lu jiit loolu tak mooy sikar ci ku tedd kii rasulillahi sallallahu alayhi wasallam gi ñu gën a ak yéen gën a waxtaan ci programme bi nga xamante ni Kiki TV ak Salam TV ñoo ko orchestré depuis ce matin ak léegi léegi dañuy ànd ak gars ñi ngi ak mag ci yaa oustaz Ibrahima Diarra di sëñ bi sëñ Babacar Diarra sëñ bi ñu ngi la nuyu bu baax a baax maa ngi di nuyu bu baax di ba baata asalaamaaleykum wa wa barakatuhu di am mbégte bi nga xamante ni sa rak sa xarit sa sa sa gañoo mun naa lépp ngeen bokk mu yaa oustaz Ibrahima Diarra ren nag muy fukkeelu édition ak ñett bi treizième édition ñaari at yi amuñu ko ban njëg nga am ci bis bi. allah dañuy sawar bu baax di wax ci programme bi ndax Ibrahima sulul frère bi ñu doon daanaka mën naa wax ne man maay cheikhu murabbim maay cheikhu taalimam daanaka bari na téere yoo xam ni. ci sama loxo bii la ko jàngee te it bëri loo xamante ne yàlla dogal na maa ko jëmbatit ci moom yàlla dogal nag muy soppee alxaaji Mansour bal xaw mi moom la waykat bi ni ko araftul wara sharxan wa garban wala ara kaf misli fatan Mansour fi saairil wara nee na xool na penku xool sow waaye gisul benn sëriñ lu mel ne alxaaji Mansour yàlla dogal it mu bëggal ko boppam soppal ko boppam ndax yàlla dogal na at mu jot rek programme bi man mi maa koy taxawee ndax su ko organisé man maay ñëw waxtaane ko lu dul ñaari at yi nga xamante ni yàlla daa dogal li doxoon ci diggante bi muy Covid 19 bi mais dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla yeggale ndawam. ndax mi ngi béy mi ngi bay ci diine ji bay bu am solo waaye di ko bay ci tarixa bi waaye di ko bay ci njabootu kër Cheikh Seydil Hadji Malick Oustaz Ibrahima Diarra soo ko séenee muy dem bul ko laaj fi mu jëm te xam ni ci mission rek la ne mooy mission diine tarixa bi njabootu kër El Hadj Malick mooy mission diine gi tarixa bi ak njabootu El Hadj kon boo leen gisee fi mu li ngeen bëggoon ci wax am ngeen lépp am déet waaw macha allah day xale ñu ngi rafet njort ci moom bu baax a baax di ko ñaanal yàlla musal ko muccal ko ndax àdduna moom dafa doy waar te doodaan yi ne ci kanamam dafa bare liñ la mën a wax daal mooy mi ci yoon yi kon dañuy ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla mottali te yàlla aar ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa bu mais buñ bëggee wax tuuti jëmm yi ñu waxal pour suñu mbokk internet gën ko xam kan mooy euh, oustaz mu naan oustaz wala suñu Babacar Diarra ndax tey image bi ñu koy gis bu ne mais ba tey jëmm euh, euh, ji xamee nañ ko ci réseaux yi mais exactement da nga daara booy jàngale wala da am xale yooyu tàggat diine am de waaw macha allah ñun moom suñu lépp daara la ndax suñu wëyjur ci daara la ñu toqantale waaye yàlla dogal it ñuy daara tey bari na fi borom yooyu dégg. yàlla dogal na jaar nañ ci sama loxo bii ba ci moom mii tey bare na koy dégg rek ñi ci bëri ci ñi am tur tey yàlla sama loxo la leen jaarale kon man maay Oustaz Babacar Diarra bu Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour borom daara ji mi ngi noonu. daara ji fa la nekk euh, pour ñu dafa ñëw sàkk si xam waaw daara ji am na benn internat boo xamante ne ñëw ci liggéey bi ñu ngi nekk côté Sébikotane waaye moment bii majaas yi rek laay def maa ngi nekk si Kambaaw heure boo ñëwee téere boo indi rek suñu ko yàlla xam loowee rek incha allah ñu teg la ci yoon. kon mbokk internet yi kii toog mu naa ni yàlla su mboroom am na lu mu ko bàyyil ngir dina di nekk ci jaamu yàlla waaye dégg kàddu yi nee na Oustaz a Diarra mu ngi ci yoon yoo xamante ni am na yaakaar ngir yàlla gën koo toog ci yoon nga nekkee daara ji nag mi ngi sëbe xotaan ak si kàmbaaw li ci gën a am ay leer daal mooy sëñ Babacar Diarra waaw man de daanaka dagara laa jàngee alxuraan daanaka fa laa jàng ba Cheikh Khalil ci laa dem def sama tarbiya yeggale samay téere yeggale sama jàng ci ëttu Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour borom daara mu nekkoon euh, mag ci yaa Oustaz Ibrahima Diarra. yow yaay Mansour moo yore xilaaf Alaaji Mansour إني عارف برب البيت واو واو إن رأيت بعد في ذاك منصوري نجل الإمام همام الحاج مالك طفي شيخ المزايق مهر مهر محمد رسول

محمد محمد محمد منصور محمد محمد منصور محمد محمد محمد محمد منصور يلي محمد محمد منصور Mamadu Mamadu Mamadu Mamadu Mamadu Mamadu Mamadu Mansa Mansa Bajarami Mayal Mamadu Mansa Bajar Yawlai Wayat Mamadu Mansa madame jara ñu ngi lay nuy di la ziar bu baax baax yaa ngi jàppale sa jëkkër macha allah di la ziar bu baax oto si tamit préparé nañ bu baax a baax léegi nag loo xam sa bisu borom kër bii tey adduna bi ñëpp a ko doon xaar fu waay sànni mbatte mu tàcc ñëpp a itali Espagne Niger koo xalaat rek ñëw na si bis bi yow mi nga xam ne yow yaay madame bi tey dañ la buggoon posé tey si question bi tey ban mbégte nga am ak ban yëg-yëg kay na nga am tey si bis bi quoi. xanaa mbégte ak contentement rek na dafa baax ah loolu la moom lu mu xewle moom day neex na xolam a rafet waaw kay ñu daal di àndandoo nii yaa ma gën a xam jàppale ko si bis na dafa war a neex parce que borom xobu rafet boo xewle <laughs> li nga xewle daa war a neex na dafa baax am benn problème yaa ma gën a xam dara warul sedd lu jeex na lan laay waxati encore. nga ne nga ne tey dara warul sedd tey tey nga def sa tay baas bu baax ak sa zipp tey ban yëg-yëg nga am ak ban mbégte tey lu tey loo sentir yow tey yow tey ji yow tey. ah mbégte ak contentement rek gis nga yaa ma gën a xam oyofal ko nii de def ñu dara dañ koo simple ndax ay jàng kese la yaa gën a xam moo tax ñu oyofal ko nii te bisam tamit warul tuut dañ ko war a sincère yaa ma gën a xam. waaw ah, ki nga xam ne moom mooy madame jara moom moo def kàdd yi rafet yi di témoignage borom ak borom këram kon aja Assou ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm seen hôtesse baax na nag yéen a ngi jàppale Diarra bu baax a baax kii nga xam ne moo nekk si digg bi moom mooy magu jara lu bari nag moo ko def si moom jara nekkoon na Tiwaawan lu bari nga xam ne moom moo ko yar moo ko tete moo ko yóbbu sa daara ja tey bu demee tey ba am mbooloo mi tey xam-xam bi nekk ci moom ginnaaw yàlla moom mii la tey nag moom lañ fas yéenee jox mu wax si jara tey ak bis bi tey moom mi nga xam mooy magam dafa jóge ba Tiwaawan bàyyi itam yëpp ñëw jàpp si bis bi tey ki nga xam ne moom mooy magam ñu naan ko Fatou Coulibaly faatu loo xam tey sa bisu rakk bi tey asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di leen ziar di nuyu imaam yi nga xam ne ñoo fi jiitu ci seen taxawaay jiital ñaan ci bés bi ñoo fi jiitu sànq ci ngoon ñeenti imaam ñoo fi ñëw def seen ñaan lalaa yeka jataay bii ñoom it ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal te xam ne seen ñaan macha allah gis nañ ko jiitu si nañ fi kon ñoom it ñu ngi leen di delloo njikkal bu baax a baax a baax ci barke xadaratu malikiya barke bés bi ñi ngi kontaan ci képp ku fi teew ci sa taxawaay sa mën-mën sa kàttan ndax woote ñu wuyu la yombul woote yi nag bari na waaye woote ci yoonu diine moom lu am solo la te Iba Diack fii mu teg tànkam macha allah wàccul yoon wi ndax waajuram wu góor lii la sàkku woon ci ñoom xam-xam rek mu mu ne xale yi sàkkuma ci ñoom lenn lu dul xam-xam bu ñu góor góorlee am xam-xam incha allah du ñu ñee kenn te macha allah kon wàccul yoon wi kon nag li ñu xam ci moom mooy ku baax la ku am yërmande la ku fonk fi mu bokk la ndax nag am mbir te xamoo ko ñàkk ko te réere ko moo ko gën waaye macha allah moom li mu yor xam na ko te fi mu teg tànkam xam na ko kon dañ koy ñaanal sumba yii nga xam ne moom la sumba dañ koy ñaanal mu gën a yaatu gën a yaatal nekk ay daara yu baree baree baree baree bare bu bu ëllëgee buñ ko ko tàntalee fii tàntal ko ko feneen seen waajuru góor nag rii rek la bëggoon doxul daray caaxaan amul lu dul tiwaawan sam papa tiwaawan rek la bëggoon jël njabootam yëpp sa mbaxtal leen ci tiwaawan kon Iba Diack bu nekkee ca daara ja macha allah taxaw fa taxawaay ba tey jii mu génn ñëw di sanc lii kon duñu am lu dul gërëm ko sant ko gërëm nañ ko nag sant nañ ko am na taxawaay bu Tiwaawoon kenn du ko ca man bu gàmmu Tiwaawoon ñëwee ma nga taxaw ci dooleem ci pas-pasam ak ci yërmandeem barki démb ziar général la jóge Tiwaawoon ba mu ñëwee ña mu fekk sama kër sax xamu leen waaye dafa futteeku yor mbubbum taalibe macha allah ànd ak gan ñi di liggéey te loolu rek moo ko wan kon li ñuy wax ci moom mooy dañ koy ñaanal rek ndax wax ji moom daanaka jarul bareel waaye nañ ko ñaanal fii mu teg tànkam mission la yor nag. mission diine nag du jeex da ngay liggéey rek di liggéey rek di liggéey ba liggéey ñoo xamante ni su ëllëgee li nga taxawee daañu taxawee lu mel noonu yéen ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay ci suba ba léegi yéen a ngi fi leen toogu leen ndax ngir rek bëgg a bés bi rafet ñun nag amuñu lu dul kër maam Maodo si kër maam Maodo rek lañu am moo tax lépp lu ñu def ci ñoom rek wàcc ñu yoon bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant mbooloo mi yëpp ku teew ak ku teewul ndax tey programme yi bare na waaye macha allah terewul ñëpp wuy si nañu muy ci wàllu fameem muy ay am di jàmmam muy ay ñi mu nekkal ay daayira ñëpp macha allah ñi ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan bépp yiw biñ fu ñaan yal na yàlla sotti ci doomu aadama yëpp rawatina jullit yëpp te ko ci àdduna bi yëpp mu doon tawféex ak taysiir ci barke Serigne Babacar waaw macha allah kàddu yi rafet na trop tey yéen ban yëg-yëg tey ngeen am tey ngeen def mobilisation bu baax ak hôtesse yi macha allah ngeen def lu rafet ñëw xeeñ lu neex yéen ñëpp ñëw si bis bi ak mobilisation bi fu nekk ngi nit a fay jóge mais loolu jara lan lan moo ko may loolu quoi. lu ko may loolu du lenn lu du pas nit lu mu bëgg lu ne di ko wuyoo daf koy nuroo pas-pas rek ko ko may boo yoon yi bari na wax naa ko ci tàmbali bi yoon yi bari na waaye moom dafa tànn ne man. kër Seydi Hadj laa tànn moo tax lii mënul ñàkk lii force day am yoon yi bare na waaye fi mu tànn foofu la te ñun amuñu lu dul kër sëñ sëñ Babacar moom rek lañu am moom la ñuy nooyee moo tax taxawaay bii mu taxawaay dara pas-pas rek ko ko may pas-pas rek taxaw rek boo amee pas-pas gëm li nga nekk xam li nga yor doo arrière ca kanam rek te ñun dañoo fas yéene bokk ci soldaari mbayi waaw ki nga xam ne moom mooy Magu Jara wax na kàddu yi am solo ñu ngi koy sant di la ngërëm oto si tamit ku ci am looy wax loo xam ne parce que ay jigéenu Jara rek ñoo fi nekk ku ci am tamit looy seede looy témoigner tamit ñu ngi lay dégg suñu micro pour nga wax. salaamaaleykum wa rahmatulah mbooloo mi daanaka ki wax na lépp sax waaye man Jara bu ko xamee yàgg na yàggul waaye dafa doon nit ku baax la. nit ku am lislaam la yaa ngi dégg baax na am na yitte alal du ko boole kenn te noonu amee yërmande baax si ñëpp nekk nit ku diine nekk nit ku lislaam loolu laa xam ci moom bisam bi nag kontaan nañ ci lool teewaay ndax jar moom bu ootee lépp lu waay jàppoon di nga ko bàyyi ñu wusi ko ndax moo ko wane moo ko moo ko liggéey mu la ñuy jàpp ko vraiment borom mbaax la ku baax la daal bu ko yàlla fayee xolam daal du mer laa xam ci moom waa kii nga xam moom mooy jigéenu jarama macha allah mi ngi def otesam bu baax a baax ñëw jàppalee góoram maanaam sa digganteeg jara fan la commencé quoi. waaw ah, sama digganteeg jara am na ku bu mu ma sama diggante am na commencé ma amul fin man daal lu ma ci mën a xam borom baax dëgg baax laa xam ci moom boo ma xamee ba léegi musul mer musul fekk mu sax kanamam te problème bay am boo ko waxee da ciy taxaw da ciy daw sa faak maar wa nag loolu it baax dong moo koy def. yaa ngi dégg borom mbaax man mbaax laa xam ci tey maa ngi jëm si wàll. egg sa kóol yi jëloon ma ci kaw. sam sam ak wàll nga may yëgal. jigéen ñi baax na ko jël jëkkër defal ngir mën ko Thank you.

nañu xam-xam comme ni mu koy waxee rek ñun ñëpp lebal nañ te kenn ñu ko fay sama daayira mère crédit bii mooy borom xol yu bële yi toog seen président daayira mooy papa mu ne toog ak yaayam soxna rakk yu ñu nii ak ñoom soxna Fama ñaari Fama ak sama kàtt yi toog mu jël programme bi tuddee leen ko ñu ngi nii def seen délégation seen yoon topp ñii borom xol yu bële yi maam Ousmane si mooy moo leen tuddal tur naa yaay keroog ba mu ñëwee ci sama laylatul qadr bi mu njëkk a ñëw ne ma may doon doon ndax mu ma tey de oto bi ma ma ne ko ah, ma ne ma sa daayira laa ko njëkk a mu ne ko ah mu ne ma sama maam Abdou Aziz Dabakh moom moo ko jëndal ci ñu koy àllaaxira mu ne ko ah loolu nu mën a nekkee mu ne dafa am benn taalibeem bu ne ko maam Ousmane otoom bi dafa yàqu dafa comme xatu bi dafa mbaax damaa bëgg nga jëndal ko famille internet ñi continué ba ci event si biñ fi bàyyi muy takkusaanu Serigne Babacar Sy bi nga xamante ni tamit ko takkusaan ne bàyyi la ko tamit Serigne Mansour Sy Djamil di treizième édition bi ñi ngi fi tamit euh, ak sang bu sel bi sëñ bi ñu lay ziar bu baax a waaw ñu lay fay bu baax a baax a baax tabaarkalla macha allah di wax di la fay ci Kiki TV ak Salam TV di la laaj euh, ñaari at a ngi nii gis ñu ndaje mi di am di takkusaanu Serigne Mansour Sy Djamil ndax am na lu ma impacté woon ci yow ndax manqué woon na la. waaw alhamdulilah xaqam di di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu jullit ñi di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu sunu kilifa gi ñu fi yabal ñu teewal ko fi ci jataay bi ci programme bi. muy Cheikh Mahamadul Habib Gaye mu xaddamu sëriñ Mansour Borom Daara ji yal na yàlla dëgëral ko te yokk leeru sëriñam moom mooy sunu sëriñ Cheikh Mahamadul Habib Gaye mooy sunu sëriñ mooy sunu kilifa moo ñu yebaloon ci programme bi ñu tuddeewoon ko alaaj Hadj Mansour Bal Xawmi di tourné ndooru sëriñ Mansour si borom daara ji oustaz Jara amal ko ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel jaam yàlla yi fi teew di am mbégte ci Salam TV ak ITV. di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla kaweel seen organe ci barki yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam li ma ciy dolli rek mooy nii la te lii dañ ko bëggoon wax ci micro ba waaye nag yàlla dogal na temps xëy na moo am parce que sama xaatir sëri na lima ma mooy mbóot mi wàccoon Tiwaawan tabaarikàlla macha allah gunge woon Seydi Aj Malick ba empêché wut ko ci kundung kandang kandang kandang tey jii nii programme bi loolu sama xaatir dem ndax lëndëm euh, leer a koy gàcceel fépp fu leer fekk lëndëm dana ko gàcceel kon lu bon warul mën a empêcher lu baax nit ki gëm boppam xam boppam moo ci war a jiitu boo xamee sa bopp rek fi nga war a teg sa tànk foo teg sa tànk rek dañ naan gonga kon nag fa tabaarikàlla rëj rëj loo bi lii la bu leen gis dara loo xam ne safaan la waru leen ko mën a dindi dindi leen ko ndax leer mooy gàcceel lëndëm mais lëndëm du gàcceel leer. kàddu yi nga yëkkat day mel ni da ngay euh, gën a ñax doomi aadama yi rawatina ndaw yi ci seen tànk diini ñekk yi ma ci am tànk ginnaaw am tànk kalam. waaw loolu mooy dégg loolu mooy dëgg parce que ndaw yàlla dafa soxla ndaw boo xoolee buy yónni yónent yi bi muy yónni yónent yi sallallahu alayhi wa mu yónent yàlla Muhammad ak yeneen yónent yi ko jiitu woon yëpp as bi mu leen yónnee kenn ku nekk xam na ne asu ndaw la. kon jaamu yàlla ak ndaw dafa ëpp doole jaamu yàlla ak mag kon xale yi nañ gën a fonkaat seen bopp xam seen bopp gën a joxaat seen bopp chef religieux yi kilifa diine yi ñu gindi leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ku ko ci def bu soob yàlla ca kat ci kàttanu yàlla sa dund du sànku sa dund sànku ban kàddu gu mujj ngay tàggoo ci ñaari at yoo xamante ni amuñu ko ndax covid treizième édition bi ndax satisfait na la am dit waaw alhamdulilah ndax ku xam diine l'islam xam ne léppam ci ndigal la ku xam tariqa tijaaniya xam ne léppam ci ndigal la ku xam kër Seydi Añ Maalik xam na léppam ci ndigal la kon nag fa tabaarikàlla defuñu ngir làmbatu ànduñoo ku ñu neex dañoo ànd ak ñi ñu booleel ñi di jëf li ñu sant jëmm ji xammee nañ ko ci réseaux sociaux yi ndax daara ji mën nañ xam fan la liyee jamono ji saa si tembe ak ba xam na ngay jàngal xale yi jëm leen ci diine ba tey am diit waaw ma macha su ñu daara noota jabaas la noota jabaas 4 kilomètres de Thiès wala 5 kilomètres de Thiès fa tabaarikàlla foofu la macha allah ña ngi fay tarbiya doomi aadama yi di leen fa jàngal seen diine doomi jullit yaa nga fa di jàng alxuraan samp nañ fa daara tarbiya bi bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mansour daf na ko ci ñun euh, radiallahu taala ni yàlla na yàlla yokk leeram ñu ngi continuer di ko def ci ndaw ñi jërëjëf mu nekkoon sëñ bi gay kàddu rafet na mi ngi soññ ndaw ñi tànk diine bi nekk bu leen ko dara empêché nañ ci gën a am tànk kalam bañ ci am tànk ginnaaw maanaam lu muy tënk ci gàttal daal mooy fu caaxaan nekk rek bu ko fa diine fekkee rek faa war mu nekkoon loo xamante ni nag fii la ko waxee cité pépinière nekk en face salle Bantamba di treizième édition takkusaanu Sëriñ Mansour Sy Djamil écran bii ma tiim day tasaaroo moom mi xam naa ko bu baax lu tax ma ñëw fekk ko fi dem jël chaise toog ca cat sama sëriñ la fii ma toog su ma waxoon ni bu fi toog du fi toog fee toog ba tant bi jeex ma jug ñibbi te xam naa ni bu ma ñibbee maam Seydou dina bëgg ci xorma bi ma jox njabootam nañu góorgóorlu ne mbokk yi góor góorgóorlu lii ki ngeen koy defal ne lii ki ngeen koy defal muy alxaaji Mansour muy alxaaji Mansour ku ñàkkoon caaxaan ku ñàkkoon la am na sax ñu ne am na ñu ne daan su daan dox mbedd Tiwaawan. ci xëy baam. ci xëy baam. soo ko séenee. soo ko séenee. da koy xajal mu dox di ñëw. yow nag soo demee. ne yow nag boo demee. ba jël bis. ba jël bis. tuddee ko. tuddee ko. alxaaji Mansour. ngalla. ngalla waay. góorgóorlu mu méngoo. ak jëmm ji nga tuddee tànt bi. ne yàlla dogal. sëtam ñëw toog. sëtam ñëw toog. loolu dal na xel de. nee mbokk loolu dal na xel. moo tax moo tax daal. te tey la samedi. te tey la samedi. programme yi dañoo bari. programme yi bari lool. man su ma fii. man mii bu ma jugee fii. maa ngi dem fële. maa ngi dem fële. caaroy caaroy. benn gàmm benn gàmm. waaye yàlla xam na ni. waaye yàlla xam su ma njortoon ni. su ma njortoon ni. sama kilifa dafay nekk. sama kilifa nekk. damay dem feneen. kon du ma ñëw damay dem feneen. ndax xam naa ne bu fi toogee. toogaale yu Tiwaawan yëpp la fi toogee Serigne Babacar Sy Mansour la fi toogee ne li may wax dama koo xam. ndax lu toll ni xadara. ndax lu toll ni xadara. bu gën a mag ci senegal bu gën a mag ci Sénégal. ñu koy defee ci stade. ñu koy defee stade Amadou Barry. ngay roy sa maam. ngay roy sa maam. ci ci baat. ba tax. ba tax ñu jël lépp ñu jël lépp lu gën a am solo lu gën a am solo mooy ñaan muy ñaanu xadara mooy mooy mottalil benn mooy mottalil mboolem xataa mooy mottali mboolem xataa mooy yàqu-yàqu yàqu-yàqu yu am ñu teg ko sa loxo ñu teg ko ci sa loxo ba yow mii ba yow mii soo ko gisul soo ko gisul nga ne nga ne alaaji Abdou mooy ñaan baat bi may dégg daal Maulana Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabakh kooku yàlla may la mu dëkk ak yow. ne kooku yàlla may la nga dëkk ak moom. moo tax nit. moo tax nit dina dëkk ak waaja dëkk ak waaja du ko faale du romb waaja du ko faale du ko faale ba waaja romb ko ngalla ngalla waay mbokk yi nañu amat xorma nekkat taalibe nañu nekkat ay taalibe bërki démb rek ne bërki démb rek maa ngi koy wax ca gunaas maa ngi koy wax ca gunaas sama ñu te moom mii moom ngi toog ma ne ko kër gi ma ne ko kër gi daal ñu bëri ñu bëri dog nañu dog nañu te lu leen dog te li leen dog mooy seen sijaada sëriñ mooy seen sijaada sëriñ yi nga xam ne lañuy ñuy toog la ñuy toog nan dañuy barkeeru mhm. walla wala. sëñ bi teg kurus gi. sëriñ bi teg kurusam. ah comme que kurus si yéen la. comme kurus xaaral ma barkeelu ci xaaral ma barkeelu ci. wala. wala. mbaxana bi mbaxana bi sëriñ bi. nga ni xaaral. ma teg ko sama bopp. ngir leer gi barkeelu ci. te ñu ne la. te ñu ne soo toogee sa sëriñ. soo toogee sa sëriñ. na mel ni. na mel ni. néew. néew bu ñu teg bu ñu teg. ci buntu jàkka ci buntu ji. war koo jullee war koo jullee. kooku kooku. yëgatul dara yëgatul dara. ñu ne la ñu ne la. noonu nga war a mel ci sa kanamu sëriñ. nañ bàyyi xel. nañu bàyyi xel. kon programme bi. kon programme bi. ci ndigalu Moulaye Aziz. dafa am ku ñuy déglu. te incha allahu taala. man bokk man bokk ci ndigalu mu Abdul Aziz danaa toog ci ndigalam déglu ko ba mu daaneel insha allahu taala waaye daal bu ma sañoon ñu barkeelu tuuti ci baatu Cheikh El Hadji Abdoul Aziz mii cay abiyaatu maamam ne moom mii moo koy way ubbil Oustaz Babacar ndax programme bi mën a démarrer su ko defee oustaz ak waykat yi ñoom daal xamante nañu seen biir xam nañu nu ñuy def ba takkusaan bi nu ñu ko bëggee daal mu am barke mu neex ndax oustaz Babacar ñu ngi koy nuyu di muy jàmbar lool ñu xam ko lool fee ca daara macha allahu taala guddi xamul bëccëg xamul bëccëg. sa bis sa bis. nii la mën a mel nii daal la mën a mel. day fees day fees. ndax ndax. ku xewle ku xewle nga ko nga demal ko wallaahi wallaahi ku am ngor am ngor su la fayee su la fayee fii fii kenn waru fekk ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla di la ñaanal li nga def nii li nga def nii yàlla na ko yàgg mën yàlla na ko yàgg mën yàlla bàyyi la ak sa soxna te yàlla bàyyi la ak sa soxna ba ngeen am ci ay njaboot ba ngeen am ci ay njaboot bu barkeel fa tabaraka allahu yi kaddu yi daal fii lañ koy yemale yemale di nuyu ki ma àndal sama turandoo sama turandoo Serigne Babacar di ko ziyaara bu baax ne lu ci jub daal ñu xam ne mu laay la ñu xam ne mu laay Abdoul Aziz Diop la lu ci dëng waaye lu ci dëng daal ngeen xam ne taalibeem bii la moomatul ndaw moomatul ndaw waaye nag waaye nag lu ci jub rek lu ci jub rek ñu xam ni sante ko yàlla lii daal lii daal nañ bëgg nañ bëgg jox ko jox ko mu barkeelu suñu paree sëriñ bi Oustaz Babacar dugg ci waxtaan bi nuyu jigéen di nuyu jigéen bi di leen wax ni di leen wax ni yéen xorom ci biir cin loo leen bokkul lu ngeen bokkul wala loo leen teewul du saf dara ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ولم ولم تحل القلوب الأرض وختم الكل لله حكم الوجود الذي أبدى ولايته ربي والآدم بين الماء والطين شيخي تيجان الله قطب الوجود الذي أبدى بلايه ربي وآدم بين الماء والغوص والبرزق المقدوم عاليا أخطى بالإله بلا مولاي وربي وآدم بين الماء وكم أناس تمنوا بالسلوك على أسلوبه مقطع من خالوا قدم الوجود

بيت الولايات مصباح الظلام وافتاح الكنوز وختم الكل بيت الولايات مصباح الظلام أجل ولايتي إصباح الظلام إفتاح الكنوز وختم الكل أصحاب الرسول وأحباب الأقول وكتب الغيب على الرسول

Eh, kii maamam maamam moo ne wa faydu raatika al musla li juudi umu fa laysa yusbihu bahrun wala madar kon ñun ñëpp laa wax ñëpp génnewuma ci kenn loolu am Cheikhu Tidiane yow doo ñàkk xaalis ci àdduna lii mosuma koo def te du ma ko def waaye damaa yaakaar ne tey Alaaji Malick bu ñëwoon fii yaakaar naa danañ ko danañ ko danañ ko jox moo laaju ma ko laaju ma ko de te soxlawu ko waaye ku yëkkat sa ñaq def ci yàlla boo ko ñàkkati ci barke yonent bi yàlla ci yonent bi gis nga joxe bu dee tax a ñàkk ku watadul sa xat ku joxe tax a ñàkk billaahi boo watulul sa xar kii surtout Alaaji Maalik la ndeysaan ñëw leen waaye bu ngeen jóg ngeen ñëw. jërëjëf yal na yàlla fay yi jërëjëf. Thank <laughs> you. Thank you. jant te jamono Sëriñ Xaaji Maalik rocciwul ci biir jant bi amoo li la gën a waaye tantu tijaan jamono Sëriñ Xaaji Maalik tab bi ci biir tant bi ak tant bi lu mu déborde déborde rek am na ca kon dañuy noonu la ñuy nuyoo Mawlaay Abdul Aziz ak Cheikh Seydi Aboubacar Si yàlla xam na ni yàkkamti wu ma ngir jot ci kàddu gi ndax yéen idxaaru suruur fii xuluubil muumin ngeen di def maanaam da ngeen di ak mbégte ci xolu jullit te fi seen kaddu di yëgg ci mbégte xolu doomu aadama yi suñu kaddu yeggu fa ndax seen maam Serigne Babacar Sy dafa ne Serigne Hadji Malick ut naxwaha wasrim xibaala awaariqi xulli rafiqi aqi badaari badaari nee na dana jéng jëm ci alaaji Maalik ak waa këram buum bi nga xam ni moo coordonné sa diggante ak Seydi Hadji Malick ak njabootam waxuma la yow ma fa bokk di dem waaye koy àndal ne ko kaay ñu gaaw yegg ca ñu ne ko lan moo tax mu ne seen maam Seydi Hadji Malick huwa al-fataaha inda kulli shikaaya nee na problème bu am rek seen maam moo yor solution ndax wal muskilaatu ida azat maaqiduha yuxilluhu kon su ngeen toogee fii ci jataay bi mi ñu tiim xam na ni suñu philosophie mooy jabaru Seydi El Hadji Malick xàmmewuñ ci kenn ku mu doon rek cër ba ñuy jox moom lañuy ñuy jox ki fi des te damay faral di wax ni nit dina dëgg Tiwaawan rek ñu topp la nit di nga bokk ak Seydil Hadji Malick ñu topp la mais ci biir njabootu Seydil Hadji Malick yi daf ci am ñoo xam ni seen jikko nga leen di toppee ndax li koy waral mooy fa kam mudda'i irfaana li cheikhi yantami wa ma saddaqat ma yadda'ihi shama'ilu maam alxaaji Mansour borom tàkkusaan bi jërëjëf sama goro nee na bare na ko askane boppam Seydil Xaaji Malick bare na waaye soo xoolee doxi na xool moo boole ci boppam moom moo boole ci boppam Seydi El Hadji Malick waaye Seydi El Hadji Malick ko ci boppam waaye heureusement sang yii li fi seen maam bàyyi woon su Seydi El Hadji si waatoon du defar seen toogaay ndax fonk nu fonk nañu seen i wér ba pare nag fonk julli ja ca booloo nga maam Seydi El Hadji Malick ku koy roy te royee ko ci jàng ak jàngale bay lu dagan di dunde boole ceeg di julli say farata ca mbooloo ma soo amul ngant soo toogee ni ci ñu doon na Alaaji Malick nga bopp naxoo kenn sa bopp ngay nax te Mawlaay Abdul Aziz gis nañu sa taxawaay ci xadra ndax ñeme nga malaanu wasifa ñeme nga malaanu xadara man de bokk naa ci ñi nga xam ne ñeme naa yees lu ci yéen tey dénk xale yi naa leen ñëw leen ngeen yees lu ci ñoom ndax mbir mi nag du naxe de ku ne ci yoon bi xa ñene ca yoon wax xam nañ ndax yaa ngi ca yoon wi waasil karim in aratu karama sëriñ kër Si nee na demal nga jokk ci ku tedd bi su fekkee bëgg nga am teraanga moo tax ku tedd ki maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu wal lil muhtaaji akramul jaari kon liñ leen di wax moo leen da ngeen gën a ormal ñi fi Seydi El Hadji Malick bàyyi dama dem Malikia TV xam nga man yàlla daf maa boole ci ñi nga xam ne xam-xam bi barewul ragal yàlla gi barewul cellate gi barewul waaye fit wi ak sama détermination kër Sëriñ Xaaji Malick kenn ko nag bi ma demee Malikia ma ne ñaar laa fi gis ñaar ñoom rek ñoo waragul kër alaaji Malick waaye ku dul ñaar ñii baaxee na kër alaaji Malick defaroo kër alaaji Malick jekkee kër alaaji Malick def leen ay wujj muy waa kër maam Rawxaan Ngom ak waa kër maam alaaji Ablaye Sow télé laa toog wax xëy na nag am na ñeneen ba tey mais man tegu guma xamuma leen bokk ndax ñi tënku woon ci waawoon tey ñi ci bëre seeni njaboot jëm nañ ci seen bopp ba pare jël njabootu Serigne Hadji Malick def leen faas ku ko ci mos def na jigu la kon si ñu ngi kontaan bu baax ci seen teewaay fii di nuyu nag alxaaji Mansour mi ci ginnaaw alxaaji Mansour Njoor moom yàlla dogal na 2018 laa ko gëj a dégg xanaa kon gis moom kenn waxu ko di nuyu xaj Moussa di ko ziar di nuyu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sarr di tedd yi ci kaw di leen wàccee seen wàccuwaay di nuyu xaj Moussa di nuyu ñi doon tagg yonent bi ma boole leen ko di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla may ay fatxu yal na leen yàlla may ay bayre damay faral di wax ni woykat ñett baax na ci moom baat bu neex bayre barke yal na leen ko yàlla defal gis nga woykat bu ci neexul baat te bëgg di way mbaa woykat bu ci bëgg di way te amoo barke mbaa woykat bu ci bëgg di way te amoo bayre ci wër di yàq sa moromu woykat yi ci ngay dëkk te kenn du la dégg ndax yow la ngay woy kenn ko déglu da ngay mujj naan moom day sabaru rek moom day folklore rek moom day foo ci tànt rek fekk yow yooyu yëpp di nga ko def mais kenn dala dul feccal kon yal na leen yàlla boole ñett yooyu yëpp ci barke yërënt bi barke Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour di nuyu nag Oustaz Jara sëriñ bi ñu ngi leen koy dénkaat bu baax a baax ndax seeni njaboot la ndax seen cër la te gis nañu bi mu ànd ak yokkute gi ne ci moom moo ëpp bi mu ànd ak ñun kon ànd gi muy ànd ak yéen jib na ko kon yéen na ànd gi yàgg ndax yéen ku ngeen àndal yéen a koy yëkkati ku ngeen àndal yéen a koy sagal ku ngeen àndal yéen a koy teral ndax xaaru leen benn retour ci taalibe ndax xam naa ne jare bii su fekkoon ni lu ngeen di wut mbaa lu ngeen di am ngeen di wut fii xam naa ne la onze tey li fi programme yi ngeen mën a def ngeen bàyyi ko da ngeen ko jàppee seen jikko kon yal yàlla fay leen xam naa ne nag waxtaan wi du bare Oustaz Adama Sarr ñu ngi lay nuyu waxtaan wi du bare am na ture waxtaan wi nag du bare benn góor yàlla rek la waxtaane laal ci moom tuuti mooy alxaaji Mansour radiallahu taala anhu ñu gën ko miin ci balxaw mi ñu gën ko miin ci borom ñaari kaala yi waaye ñu gën ko miin ci alaaji Malick moo la jur mooy sa nijaay moo la yar moo la xamal yoonu sikar si mag nga door a kër dafa am benn shérif bu ñëw ci Serigne Babacar Sy radiyallahu taala jox ko benn turu yàlla fekk laata muy ñëw ci Serigne Babacar dafa njëkk ci alaaji Mansour jox alaaji Mansour turu yàlla bi dem ci sëñ Babacar jox ko tur yàlla shérif bi ni sëñ Babacar fexeel ba wax alaaji Mansour ni ko tur bii ñu jox fekk amul ñeent fukki at buñ ko laal boobu shérif bi dafa jaale ci Serigne Hadji Malick mu ne ko soo amul te kenn ku ne xam na ni bi Serigne Hadji Malick di génn àdduna alaaji Mansour vingt deux ans la am mu ne soo demee turu yàlla bi bu mu ko laal te amul ñeent fukki at sëñ Babacar yónni ndaw ni dem leen ngeen wóol ma Mamadou sëñ kër ndax El Hadj Mansour Mamadou la ko daan woowee bi ñu demee wóol ko El Hadj Mansour El yegg mu ne ko ana tur bi la waa ji jox mu ne ko bàyyi naa ko ci kër gi mu ne ko nee na bul ko laal te amoo ñeent fukki at El Hadj ni ko. bi ma amee fukki at ak juróom la ma ko sama baay jox liggéey naa ko ba wan naa tur ba góor googu nag la ñu fas yéene waxtaane damay wax ni nag Alaaji Mansour suñuy xool nitu yàlla yi ko xam barewul xaw ma ndax yéen a ngi may dégg Cheikh Hadji Abdou Aziz rek moo xam Alaaji Mansour ndax dégg naa ñu ni kaasiya bi nga xam ni Abdal Aziz yi aynil uusika wasiyatan anka tashfi kulla ma fiika nee na bi ko alaaj Mansuur bindee jox Cheikh Hadj Abdal Aziz dégg naa ci Serigne Modou si dafa mos a toog yor xasida bi bàyyi abdu ni ko ma xool li nga yor mu jox ko xasida bi mu téye nee na mu jàng ko ba mu yàgg mu yëngal bopp ni seen xasida bàyyi jiidee moo ma orienté man alaaji abdu ndax moo tax ma xam fi ma mën a teg sama tànk ba mën a gouverner tarixa Cheikh Ahmad Tidiane alaaji Mansour noonu nag la ñu fas yéene waxtaane ngeen ñiin bàyyam nag bàyyam muy Cheikh Seydil Hadji Malick annaytu rawdata malikin wa imamina bahri shariati wal haqiqati jaari xam nga Seydil Hadji Malick nan la rawee góor yàlla yi mooy Seydil Hadji Malick ay doomu ma ko gëm ay doomu ma ko sopp ay doomu ma ko bëgg Sëriñ Babacar Sy ne ah am na it jublu ji ñu ne ko fu ñuy jublu mu ne rawdata maliki rawda Cheikh Seydi Hadji Malick mi nga xam ne wa imamina ban lay ziar jaw bopp jóg waaw waaw bi man ngay déglu wala rythme bi la ndax sa waaw waaw bi dafa tëglu rythme bi ameytu rawdata maliki wa imamina xoolal njaboot seen maam suy bakk alaaji Malik déggal sëñ Babacar nee na na nga jublu ci roodu Seydil Hadji Malick ñu ni ko ken la mu ni imaamina kii suñu njit ci yàlla di suñu guide ci yonent bi di suñu modérateur ti Cheikh Tidiane ñu ni ko xamuñu ki ngay wax mu ni bahri shariati nee na sharia bi sharia bi alaaji Malick ci géeju sharia lay dox dama dégg alaaji Mansour radiallahu taala anhu suy tagg baayam naan ko aynu shariati wal xaqiqati innahu yahdi al murida li xaalisati adyaan nga déggaat mu naan ko wa chadru sariati summa al xaqiqati fulku najaati alladi qad ulim nga dégg seen seen seen sëñ Babacar ma ne xoolal charia bi sëñ waaw jërëjëf dama leen war a yeewi sax ndax àq yi kii bañ leen yoreel àq rek su ngeen bëggee dem rek ma yeewi leen ndax yéen seen jataay une minute rek li li Serigne Babacar Sy waxoon ni euh, kullu mri'in yaxwi l muna bi liqaa'ihi fa liqaa'uhu yawman nee na dajeeg Siraaj Malik benn seconde rek fa min xatu Malik kon yéen benn seconde suñ ko amee ci yéen rek suñu honneur la su ngeen bëggee yeewee ko rek incha allah ñu yeewi leen ndax am na ñeneen ñu leen di xaar fu ma toll woon baxri sharia xoolal tey soo demoon Tiwaawan ba heure julli jot ba sëriñ si toog di waxtaan da ngay gis Seydi Hadji Malick gi mu instauré charia ci njabootam da gis ni taalib yi di bàyyi sëriñ yi fa ñu toog dem di joxe ji seen waxtu wal xaqiqa da gis sëriñ si toog di waxtaan ñu bàyyi fa sëriñ si dem lal seen malaanu wasifa di wasifa boo tax sëriñ Babacar Sy bi rawdata maliki imamina bahri shariati wal haqiqati jaari Seydi Hadji Malick moomu nag mooy bàyyi El Hadj Mansour xam ngeen kuy Seydi Hadji Malick mo mooy ku mosul lekk riba Seydi Hadji Malick Siraaj Malik musul def luñ koy xeebe looloo ko may yahdil murida li xaalisil adyaani Sëriñ Xaaji Malik Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ji dafa laaj sëñ sëñ Haadi Touré ni ko sama maam ndax daan na mu ne ko xaw ma ndax daan na nelawam déedéet waaye su may tëdd dama koy bàyyi mu toog te man li may nelaw du mat fukki minute ak juróom te su ma yeewoo dama koy fekk mu toog xaw ma ndax yéen a may déggam déet sëñ xaari nee na li muy nelaw matul 15 minutes te suy tëdd day bàyyi Alaaji Maalik toog yor kurusam su yeewoo da koy fekkaat mu toog yor kurusam benn góor est-ce que ni weer wii ci la Sénégal ñàkk lu mu dootul am mooy su ñu dëgmalee la 27 ci la Seydi Hadji génnoon àdduna bàyyi El Hadj Mansour laa leen di wax de ba ngeen xam ni kii war na mën a jur kii dafa toog muxaddam yi benn góor di lijjanti di lijjanti di lijjanti ba am kayitu terrain. ñëw ni ko si Malick këyit bi day kenn doyu ma ci dencal ma ko Seydi Malick jël këyit bi rek yëgal bopp boobu xam na ni waa ji dañ dañu ne ba am këyitu kër te du dëkk ci kër gi <laughs> moo tax bare na looy sonn su njëriñ la feeñee nga wàcc ko fi te dem mu jël këyit bi jox ko sëriñ Alioune Ba ni ko dencal ma ba seen borom soxla ko ñu nodd tisbaar ñu ñëw tàgge ko waa ji borom kër ga Sidaaj Maal ni dem leen ngeen defar ko ngeen jébbal ko boromam ñu dem defar góor gi jullee ko di ko roof ci biir bàmmeel sëñ Alioune Ba dugg ci biir bàmmeel bi di ko ci roof këyitu kër gi wadd ñu suulaale sëñ Aline ba fàtte ma ñu dem ba mu am ñeen fukki guddi ñu war a miiras góor gi ñu ne góor gi de nee na këyit gi mu yoroon këyitu kër gi sëriñam la ko dénkoon nañu dem ñu ñëw fekk Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick dafa seen njaboot gi rek ne Aline Ba ana këyit gi ma la dénkoon sëñ Aline Ba gisul dara Seydil Hadji ni ko wëral ma li ma la joxoon sëñ Aline Ba di xalaat di xalaat di xalaat di xalaat mu ni ragal naa ni keroog bi ñuy ci góor ga ca la këyit bi wadd ca bàmmeel ba waa si Malick ñuy def foofu masala féq taxaw na mooy xel yi dafa daj ci ni dañuy dem sulli bàmmeel ba te suñu sulee bàmmeel bi amuñu droit suulaat ko te jullee waatuñ ñu ni kon nañu dem léegi suñu demee ñu xool ni ñuy négocier affaire bi ñu dem sulli bàmmeel bi bi ñu sulee bàmmeel bi ñu sulee bàmmeel ñu fa nit fekk ñu fa kenn këyit bi domm lañ fa fekk fekk ñu fa perkaal fekk ñu fa karaw fekk ñu fa yax fekk ñu fa dara ñu yëkkati këyit bi ñëw ci Seex Seydi El Hadji rek moo da yëngal bopp bi di lu xew ñu nekk ko bi ñu demee fekkuñu fa waaju mu ni loolu moo gën a tuuti ci tarixa bi am na ñoo xam ne suñ leen dencee ci biir suuf su ngeen leen wanee ginnaaw Cheikh Tidiane moo leen di ramasser yóbbu leen ci barzaqam وقدوتهم في طريق الهمم بيعاض الولي الحاج مالك صيد إلى للرقائق راغبا اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم من مساكين الله من للقلوب ومن للقلوب ومن للذنوب وما قد أردت فمن للقلوب ومن للخطوب ومن للذنوب وما قد أردت

Ahmed ñu ngi ziar ñu ngi ziar bisimilah. bi hada al wali alxaaji Malick Sy man li ma ci neex nag mooy imaam al machaayix man dama bëgg gars yi aussi wax waa ji ki mu doon damay wax ba mu yàgg ni waajee raw gars yi ba mu yàgg ma ni tuub naa ko ndax koy rawanteel ngay raw kon Seydi Hadji Malick yow Serigne Alioune Ba ci ñooñu nga bokk Serigne Alioune Guèye ci ñooñu la bokk lim fukki muxaddam ni bokk nañu ci mu muxaddam yi nga xam ni suñu génnee àdduna ku leen xool ci seen bàmmeel du leen ca fekk mais moom mi defar ñooñu ba ñu mën a doon loolu kon man lan la kon da ngay dégg ni iza jtamaa al ashyaaqu fa huwa xatimuhu bi waadin baliigin fasaaxati muswidi kon ci ngay dégg ni maam Cheikh Seydi El Hadji Malick mi jur Alhaaji Mansour moom laay wax ni leen damay wax di faral di wax ni ku mënul muñ lu la dagan doo muñ lu la te Sëriñ Malick fi mu réwee ñëpp mooy li dagan la njëkk mën a muñ soow dagan na yàpp dagan na mais daf ko muñ déggal wax ji sëriñ bi wax sànq fastur hunaaka kama fi di mahaibana yallahu ya rabbi zaxzaxnii anin naari kooku nag mooy wéyjuru ki ñu fas yéene waxtaane mooy alxaaji Mansour bi ci njëkk ci martaba yi ko yàlla defal mooy kuy dem nga yóbbaale ko alxaaji Mansour muraad la alxaaji Mansour du murid alxaaji Mansour du marid alxaaji Mansour muraad la muraad moo waral mu rabbin mu raqin lil muridi bi himmatin ila kulli ma yardaahu rabbul mamalik mi dakkun wa iksirun wa saadul murid nee na man alaaji Mansour muraad laa muraad laa dama dégg ci sëriñ Babacar Sy Mansour sëriñ Modou Sy ni Ahmad Shawqi dafa mën a way Serigne Babacar Sy Mansour ni ko Ahmad Shawqi dafa jàngi mais Alaaji Malick dañ koo jël kon Alaaji Malick muraad la bu leen fàtt ni Alaaji Mansour moo waxoon ni suuf suñu dañ defaree Alaaji Malick moo des ñu tël ko defar ma ci malikan fi'lan wa xulqan yëgoon ni alxaaji Mansour photocopie see seen alxaaji Malick la nee na moo jël alxaaji Malick ci bind jël ko ci jub moo tax ma ne seen alxaaji Malick muraad la soxna Safiyatu ci seeni maam dañu mos a dajeeg boo xam ni ñu am lu ñu mos a jëflante wëliyu bi tëkku leen ni leen dootu leen am doom bu góor ñaan gi topp soxna Sufiyatu bi mu ñëwee Tiwaawan ak tarbiya bi rëy bi mu defal Seydil Hadji Malick ay jigéen la ko yàlla di may ay jigéen bokk na rekk ci kenn soxna Raqee Malick daan na wax ni góor ña fa ñu yegg mag ñooy buuxante ca buntu ya daal na ñëw ba ci buntu kër sëñ Babacar ni suñu waxee ngeen di rëy làmmin ci su guddee yéen ñëpp seen lal ngeen di yem man jigéen fa ma yegg yeggu leen fa te jigéen la yaayu sëñ Babacar lañ ko tuddee te soxna Safiyatu yaayam yàlla dogal soxna Safiyatu yàlla di ko maye ay jigéen mu ne Serigne Hadji Malick aka neexoon gis nga mag ñi ni ñu amee orma ak a neexoon ma am doom ju góor juy daagu fii ba firndeel ni sama liggéey nangu na dégg nga wax ci siraaj mal ni ko sëfiyut yow de sa liggéey nangu na gis nga baatu sa liggéey nangu na boobu ci la ko soxna sëfiyutu weexale mag ñi nee nañu ci la jël ñetti yëg ak lenn ci ay malaan ak lenn ci koppar indil ko Seydil Hadji Malick ko ngir baatu sa liggéey boobu nangu na moom laa la ko weexale Seydil Hadji woo fukki mu xaddam ni leen doom bu góor la bëgg ba pare jëlaat dog bi jox leen ni leen dog sàngam ngeen di sikkar mag ñi nee nañu fukki fan lañ ko sikkar fukki fan lañ ko sikkar alaaji Mansour nekk wëliyu boo xam ni kuy wëliyu ba duggal ko xel wa xam ne am na wëliyu bu war a judd kan moo war a doon baayam boo tax gis nga turu alaaji Mansour ci waawar rek la am Mansour keneen kuñ ko tuddee Tiwaawan nga ko jëlee secret boobu Seydi Hadji Malick dong la ko yàlla jox moo tax Mansour tawajja xaysuma chita fa innaka ci yoon dong la secret boobu alaaji Mansuur ko indaale soxna Safiyatu nekk jigéen yàlla dogal mu yeeweeku ñu ñëw fekk Seydil Hadji Malick toog moo tax Tiwaawan sëriñ boo waxtaane sula la yàlla dimbalewul balaa ngay daaneel rek ci mbooy gi nga jëm su la yàlla dimbaliwul sëriñ booy waxtaane nag ci sëriñu Tiwaawan su la yàlla dimbaliwul nga delaat gis nga alaaj Mansour bi mu juddoo Seydi Maalik dafa ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax li ma yor ngeen ma am ku ma ko fi bàyyeel xam naa am na ñeneen ñuy xalaat naan boobu ana sëñ Babacar mais bu leen fàtte ni xilaafa yi du benn xilaafa bi sëñ Babacar yor ak bi alaaji Mansour boot ak bi alaaji Habib boot ak bi alaaji Mansour boot ak bi alaaji Abdou boot du benn loolu moo tax mag ñi daan wax ni jamono sëñ Babacar xilaafa gi sëñ Babacar ak alaaji Mansour dañ ko associé ndax soo ñëwee sëñ Babacar ni ko damay def dara danaan la demal ci Mamadou su la bàyyee nga dem su la bàyyiwul nga toog ci la ne nag kon li ma yor ma am ku ma ko bàyyeel yëg na ni mennum alxaaji Mansour la kenn raxul ci Seydi Alxaaji Malick kenn ku ne Seydi Alxaaji Malick am na kum la jox même soo fa yàggul dellu si waat mais alxaaji Mansour mosul départ mosul génn ci tubaab moo tax bi teewoon tàngee nga daan dégg ñu ni moo tax damay faral di wax ni mu xattamu Seydi Malick yi Alaaji Mansour la ñu gëm waaye sëñ Babacar dañ koo nangul xam nga ku ñu nangul ak ku ñu gëm du benn ndax bare na sëñ Abdou bàyyi ma yeewi la nga dëgg la jot amul wallaay dëgg la waaw waaw waaw dëgg la jërëjëf amiin yaa ndax sëñ Babacar dafa ñëw imposer boppam ñu ni ko rawooñu ëppooñu wilaaya magooñu sëñ Babacar wan leen li tax ñu topp ko est-ce que yéen may dégg mais su dee alaaji Mansour mu jug dund Serigne El Hadj Malick alaaji alaaji lay woo sooy ñaan wér de moo lay jox su lay mu moo lay moo lay ijaasal su dee turu yàlla moo la koy jox moo tax bi alaaji Malik génnee àdduna ñu nekkoon kon nañu wéeru ci alaaji Mansour sëñ Babacar ndar la nekkoon soxna Safiyatu moo jàpp ci loxo alaaji Mansour loxo alaaji Abdou loxo alaaji Abdou indi leen ba ci sëñ Babacar ni leen ñii duñ say doomu bàyyi duñ say rak say jaam lañu moo tax Tiwaawan lu bëri lu fa defaru soxna Safiyatu ñang loxoom mi ngi ci biir ndax boobu Alaaji Mansuur am na xam-xam am na wilaaya am na bayre mais dafa ne ko yi ngay yor yëpp boole ko nga téye te topp ci sa ginnaaw mag bu topp ci ginnaaw seen Babacar mais li ci gën a doy waar day am ñoo xam ne dañuy làqatu di fa bàyyi mag ñi di ñëw ci alaaji Mansour soxna Sufiyatu ñang ni ko kon solution bi mooy génn réew nga bàyyi ba sëñ Babacar ci place toog nga door a dellu siwaat ci la dem Côte d'Ivoire xasidaam bu réy ba ca la ko taalif ayaa xaasidan naxwal xalifati xulloo taxayara xalbi xayratan ay xayrati ci la ko way sëñ Babacar si ah ci ngay dégg ni ci la dem Casa ci la dem Côte d'Ivoire yàgg fa ba ni namm naa sama mag ji namm naa sama soppi bi namm naa sama sëriñ yow mi jëm ci sëñ Babacar soo demee ne ko man Alaaji Mansour namm naa ko ba damaa mujj gërëm bi Alaaji Mansour dellu see nag Tiwaawan yëngutuwaat lool sëñ Babacar Si wóolu Alaaji Mansuur mu ne am na yoo xam ne sax du du du du dooxu tànt wóolu waat ko ba mu ñëw mu am lu mu ko laaj am lu mu ko wax la mu xaddam yëpp dal moo tax dañ daan wax ni sëñ Babacar Si mooy xutbu zamaan Alaaji Mansuur mooy xawsu zamaan moo tax damay wax ni ñu judd ci diggante sëñ Babacar ak alaaj Mansour amuñu chance ndax alaaj sëñ Babacar nekk na xutbu bi sëñ ba alaaj Mansour nekk ak rawsu bi sëñ Babacar si génn àdduna altine talaata àllarba alxames ajjuma alaaj Mansour ràngoo xutbaaniya xutbaaniya bi ba pare boole ceeb nag ràngoo rawsu bi danaan toog ba mu yàgg ñaq ba tooy ndeke mosuma xam ne xutbaane nii la diisee ngoonu ma ci la génn àdduna moom alaaji Mansour jël jël ma xutbaane bi ak gawsu bi rang ko alaaji bu def ak moom 40 ans waaye xamuñu lu xew de alaaji Abdou yor xutbaane bi téeg jël sama sëriñ Cheikh Sëriñ Mouhamadul Mansour jox ko jox ko gawsu bi soo buntu a day fees ba nga yaakaar ni mooy xalifa bi alaaji ni ni ma doonee xalifa noonu la cheikh seydi mouhamadul mansour doonee xalifa ndax keroog bi seydi jamil génnee àdduna ci la ne ko yaay xalifa cheikh seydi aboubacar moo tax alaaji abdou bi muy génn àdduna dafa woo sëñ ni ko doon naa xalifa nga doon xalifa mais li ma la ëppalee mooy secret xilaafa laa yoroon kaay ma jox la ko te dem ci la ko jox sirrul xilaafa sëñ Mansour yow sirul xilaafa gi douze ans xëccoowu ko kenn dem jox ko sëñ mu toogoo xutbaaniyaam kenn mënu koo tëg bët muy dem jël xutbaaniyaam gawsu bi dénk alaaji Abdul Aziz Al mu xool mboolum góor yàlla yi tànte tarixa yépp nag ni nekkete yooyu sëñ Babacar Sy moo ko bat baayam moom la ñu war a waxtaane kon mu ngi ñaan yàlla bu baax yàlla nañ ko teewe ay at yu bëree bëri bëri te at mu ñëw rek yàlla na dàq at mii te nag jataay bi nii mu nii mu demee nii xaw ma ku ñuy takk de waaye ñu ngi koy ñaanal sëy bi yàlla na barkeel ndax jataay boo xam ne ñu ngi fiy tagg mag ñi di tagg yonent bi même su leen neexul it ñu koy dégg am waar gi day nekk ci ñoom kon dañuy ñaan yàlla rek lu mel nii yàlla na bañ a dajeeti waaye mënoon ngeen fexe ba waxtaane ko ba lu mel nii bañ di daje ci benn barab ndax dañu wax ni ñaari contraire di daari laaj tamit ani ñaari contraire waruñu di daje kon nañ leen di góorgóorlu it su benee yu mel nii bañ di concédé ndax tamit kenn ku ne danga am sa liberté ni nga amee liberté def say jàng noonu la keneen amee liberté def leneen waaye xëy na su ngeen ko waxtaanee woon wala ngeen organise ko dina gën a yemb dina gën a jaadu ba du tombé comme nii ndax soo xoolee ña perte ma perte kenn amu ci avantage kon nañu ñaan yàlla ba su beneen ne mu bañ di daje te lu mel nii fokk taalibe yi defar ci ab njàngat mooy njàngat giñ ci war a def mooy ak ku dëkkandoo desetu ko sàmm xëy na dëkkandoo bi su meloon ni ko yonent bi santaane woon dina am kenn ku bàyyi mbaa mu am kenn ku puus kon yooyu nañ ko bàyyi xel bi ci des mooy fi may daanele sama kàddu mooy dafa am benn mars bu amoon le huit man nag ña doon mars faralu leen ñam faraluma faralu leen xam nga lan laa bëgg ngeen bàyyi ci seen xel mooy xale yi góor góorlu leen ngeen am seen ngërëmal ndey damay faral di wax ne leaderu Pastef bii ah, ga yorul gàllaaj déedéet amul gàllaaj su doon gàllaaj vingt-quatre ñu daaneel ko mais dafa am liggéeyu ndey dafa am ñaanu ndey xam nga dama leen di jox benn exemple bu ndaw dama bëgg soo gisee ma ci def ab njàngale mooy dama bëgg ngeen fonk seen way jur yu jigéen ñi ndax dañuy wax ni ku daanu rek sa ndey bu ma ñun li ñu xamoon ñun li ñu xamoon mooy sëriñ moo daan taxaw di laaj ñu koy jox muy woote ñu koy wuyu boole ci ñu naan ko ndigal la ñuy xaar soo ñu santee ñu def soo ñu tere ñu bàyyi homme politique raw la ëpp la alal gënu laa baax askan kon nañu xol affaire bi fan la te xam man lan laa bëgg nit ñi jàng ci mooy sëriñ si ñoo ci war a njëkk jàng ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ay sëriñ ñoo war a toog toog sur la table moo xam Touba la moo xam Tiwaawan la moo xam Ñaseen la moo xam Canaba la xam naa ne li may wax du am du yomb waaye loolu mi ngi door a jot ñu toog sur la table ñu wax ak opposant bi wax ak pouvoir bi gis nga bis bu amulee gis nga xale yi fii jëm kenn mënu leen téye te suñ fa jógee ci sëriñ si leen jëm xaw ma ndax li ma leen di wax yéen koy bàyyi xelam déet ñu leer laa leen di wax gis nga détermination bii ñu am te jël état mënu leen téye te gis nga suñu jógee ci état bi billahi ci sëriñ si leen jëm ndax fi ñu toll nii suñu xasee ba génn ci mbedd mi amatul sëriñ bu laan laan dellu leen ñu dellu lu dul seen leader kon li ci am solo ñi nga xamante ni yéen yéen la yàlla dimbale ngeen yor seen tarixa dee leen fonk seen wird fonk seen lazim fonk seen wasifa fonk seen xadratul juma Cheikh dafa ni àdduna ñaar diina ñaara ko mën a yàq nguur gu jeng ak borom xam-xam bu dul wax dëgg te mu mel ne nouvelle génération 2000 bii contesté nañu sëriñ si contesté nañu nguur gi kon sëriñ si nañu génn ñu wax ak njaboot ci man léeg-léeg te bi ci des mooy oustaz dafa am lu gën a garaaw mooy sëriñ si mënatuñoo communiquer yi est-ce que yéen a ngi may dégg mënatuñu communiquer ak jeunes yi imaginez yow sëriñ taalibe bii su yoree téeméer indi la su yoree ñaar téeméeri indil la xamoo lan lay teg ba indi ko di ko teg sa loxo su gouvernement ñëwee ministre ñëw. nga leen di tagg di leen gërëm te sa taalibe yi ñu ngi deewi xiif mënuñoo am liggéey Sénégal rek ngay gis ku jaay li Europe dellu si waa di wut métier kon góorgóorlu leen ku ci yor sa wird na nga ko téye di wasifa ci heure di julli ci ca mbooloo ma kilifa gi la yàlla booleen nga dégg ko sa bopp nga dégg ko sa nopp loolu moom ñoo leen koy ñaan gis nga réew mii lii dox di ñëw ku toog naan sama yoon newu ci wala du ma ci wax wala su ma ci waxee ñu fu ma dëkkal xamoo la xew man na kenn mënu maa tere wax man ndax ku la tere wax ma ngay wax soxlaa Cheikh Hadji Mansour radiallahu taala anhu ne woon na salaasatu ashyain fi zamani adima muridun wa hibbun sadiqun wa waziru ab réew nag su demee ba manqué ñett yi kenn mënatu leen téye mooy réew mi amatul ay taalibe taalibe da nga koy jàngal walla nga yar ko nga orienté ñaareel bi nee na bëgg gu sincère amatul du ci taalibe ak sëriñ du ci ndey ak baay du ci baay ak doom du ci jëkkër ak jabar du ci xarit ak xarit sincérité amatul xam nga ak ban mu ne wow ziiru koo xam ne soo jaaxlee ca moom nga war a dem mu orienté la nee na ñooñu ci boppam sax dañoo faf ñàkk imaginer ci réew moo xam ni dañ lay tooñ tëj la dañ lay tooñ tëj la doo séq ak moom dara mun la su ma neexee tëj la suba réew moo xam ne soo bokkee ci camp bi di saaga ndey ñu téye la soo bokkee ci beneen camp bi di saaga ñu tëj la te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam newoon réew mu ngeen dem te amul ñett yi boo ngeen gàddaay réew ma ñu ne ko ban réew mu ne su ngeen demee ci réew mu amul dëgg ak réew mu amul justice ak réew mu amul ndox yonent bi nee na ku nekk ci réew te ñett yi amul ca réew ma see boo na génn réew mi te dem te ñett yëpp ñàkk na Sénégal Sénégal da ngay xëy suba ba ngoon doo am ndox moo naan Sénégal dañuy xëy suba ba ngoon nit di tooñ góor di ko tëj na ngeen góorgóorluwaat ñun jàngale yonent bi la ñuy jàngale ñun xooluñu damay faral di wax ni ku jàngale li Alaaji Malik bind damay ragal damay toog di ko waxtaan ba mu yàgg sax ñu ne kii daa contre Serigne dama bëgg nga xam ne Serigne Hadji Malik ab ab la fi tegoon système tegu fi ay jëmm système la fi teg système bi ku ko wàcc rek wàcc ma yoon bi kon ñu ngi ñaan yàlla réew mii kuy julli mbaa ngay jullit mbaa ngay wérd dee ñaan yàlla réew mii yàlla na fi yàlla def jàmm dee ko ñaan ndax ñay song déterminé lañu déterminé lañu te ñi fi ne mënuñu leen téye kon ñaan rek moo fi des ndax ak duaa silaaxul muminin ñaan lañu ñu toll mooy ngànnaayu jullit ñu góorgóorlu te ñaan ak di saraxe jërëjëf sëriñ bi nee nañu boole ci di saraxe fi réew mi jëm kenn xamu ko kon ñu ngi jéggul war su kàddu bu baax di wax ni wasalaamu aleykum Malick Sy waa kër Serigne Aliou Sall soxna Safiatou Sy responsable d'honneur de la coordination Serigne Serigne Jamil Sy Mansour Serigne Abdou Aziz Sy Jamil Serigne Maodo Galle Sarr Serigne Khalifa Ababacar Sarr El Hadji Souleymane Koskas soxna Ndeye Assou Cissé di leen wax ni waa kër Serigne Aliou Sall waaw di wax ni waa kër mutahabina fillahi cité jàmmalaay HLM Grand waa waagu ñaay unité vingt ba vingt cinq des parcelles Dalifort cité Suprime cité institut Pasteur section Médina la daayira sopp Serigne kër Sy de Guédiawaye la daayira soxna Safiatou Sy daayira soppe Serigne Babacar Sy de Yëmbal ila daayira mutahabina fillaay de Kounoune ñoo leen di invité journée ñaan boole ca day am conférence le 25 juin 2022 à Grand Terrain séparant à la cité Diamalaye HLM Grand Médine ñoo leen di yëgal ni le dañuy def conférence ñu ngi koy yëgal ñëpp su ko defee rek ñu teew fa incha allah ci turuwaa ah tabaarakallaahu jërëjëf yaa oustaz xam naa balaa ngay ñaan nga jege si ma tuuti micro ma jox ginnaaw bu ma nuyoo. balaa ngay kii mën nga jox ko. tabaarakallaahu noonu nga xam ne avocat la en ci nekk ci nombre tànk am di ko ñaanal yàlla yàlla taxaw ko yàlla yàlla dëgëral di nuyu Baye Diéli mi nga xam ne loolu rek laa wax na ko sànq moo fi yor ay muridu laay sikurullah am na ko suñu jarbaat yi kon moom la ñuy jox kàddu ginnaaw mu nuyoo suñu am sell bi loolu rek laa bokk ci nga xam ni dañ ko jagleel bis bi di ko ñaanal yàlla yàlla taxaw ko ànd ak sëñ Tuubaa Njaay dëkk ci koñ bi moom it nuyu ko ziar ànd ak Serigne Cheikh Sylla ziyaara ko moom it baax baax waaye li ñu naan xel mooy fort ginnaaw ba loolu yëpp wéyee ma nuyu sama sëriñ sëriñ Moustapha Sall Atijani di doomu Mérina di sama xarit jàppale ma nag ci lu bare bare yaakaar naa ne su mel nii def na ci lu bare bare bare bare sànq ba may tàmbalee moom laa waroon dikk wax dëgg yàlla waaye xel mooy fort yóbbu ma ba dëkkam teral defal may teraanga di jàpp la na bu baax a baax a baax a baax ci doole ci poosam ci xam-xamam ci alalam di waa Medina dëkk yi mu dëkk yàlla dogal na ñuy borom yi xam-xam di ay doom soxna tabarakallahu di ko ñaanal rek yal na yàlla gën a guddal fanam di ko présenté sama mbokk yëpp di ko tudd présenté Oustaz Babacar Diarra mi toog di ko xam ne ko kii mooy Seydi Mouhamadou Moustapha Sall Tijani di ko yàlla baaxal di boroomi xam-xam di boroomi yar di boroomi teraanga kon Seydou Mouhamadou Moussa Ba yal na yàlla na ñoo ngi jégaluwaat bu baax a baax a baax a baax a baax kon ñu jox Baye Djily su Baye Djily noppee rek ñu jox Seydou Mouhamadou Moussa Ba ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew di nuyu kilifa yi fi teew ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg ci kilifa gi fi teewal maam El Hadj Malick fi njabootu maam El Hadj ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare. di nuyu nga xam ne moom day suñu wëllëre bu baax te. li nu boole mooy ak kóllëre goo xamante ni mag ñi ñoo ko fi bàyyi woon muy diggante sëriñ Touba ak maam El Hadj moom nag muy doxal loolu ci doxalin wu am solo kon nag ñu ngi koy sant ci loolu bu baax te di ko ñaanal suñu borom yokk ko te yàggal ko ba lépp mu bëgg ci kër maam El Hadj rek sama borom defal ko ko ak mboolem jullit yépp di ko seedeel ñi nga xam ne ñooy ay kilifaam neleen moom mii de li fi mag ñi bàyyi woon muy rafetal moom mu ngi ci loolu ndax mag ñi nii lañ fi nekkee woon maam alaaji Malick nii la fi nekkoon Sëñ Tuubaa nii la fi nekkee woon maam Ibrahima Niass ca Kaolack nii lañ fi nekkee woon mag ñépp nii lañ fi nekke woon suñu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp moom nag loolu daggu ci dara ndax xam na ne lislaam yépp benn la àdduna nag ñun ñi nga xamante ni bii ay jullit lañ dañ bokk diine ji li ñu war ñun ñëpp mooy rafetal rek te bëggante te yàlla tax te jàppante te yàlla tax di di bàyyi xel bu baax li fi mag ñi bàyyi woon ñu ñu topp ci yoon woowu buñ ko toppee rek duñu am loraange waaye buñ ko wàccee rek mën noo am loraange ndax mag ñi seen dund gépp dañ koo rafetaloon kon suñu dund gépp nañ ko rafetal te yàlla tax ndax suñu maam Cheikh Fall mas naa jiite julli suñu maam maam alaaji Malick mas naa jiite suñu maam Cheikh julli ca Ndar la ko waral dafa yegg si waxtu tusbaar mu daal ne ah, bisimilah jàmm doom jàpp leen mag ñi jàpp mu ne na maam alaaji Malick mii jiite julli ji ñu barkeeloo mu jiite ko julli ba mu julli ba nopp am ci mag ñi ku ne ko ah yow Cheikh Ibra bi fi sëñ Tuubaa di nekk julli woo nga bàyyi ba sëñ Tuubaa dem ci géej gi nga julli mu ne ah doom yéen a ñàkk a xam maslaa yàqu diine maam alaaji Malick xal yi ma daan lewetal moo Cheikh ameen Ndiaye maay bii mii ñoo ma ko daan jàppale ma ko daan yóbbul sëñ Tuubaa lambar nag maa yomba kon maslaa yàqul diine kon buñ buñ buñ dindi loolu mukk nañ leen sax ci loolu bu baax te xam ne jëf ju ne ñeel na boroom jëf duñ ko weccoo te duñ ko jaawale mukk nañ leen rafetal suñ jikko yi te gën a xiital suñ bopp ci jaamu yàlla te ñun ñi nga xam ne ñun la suñ borom ci bokk yi ndem mateewuñ ko waaye nañ def suñu kéem kattan ak ñi ñu àndal bu ko ëllëgee dañu am gàcce suñu kanamu maam yi ndax suñu maam yi baax dong la ñu fi bàyyi ak kon nañ leen dox ci yoon woowu saamam seera Fall nag newoon na ca Ndar a Thiam mu ne ko Fall mu ne ko xam ngeen luy xaritam mu ne ko Fall xarit de mooy ki nga xam ne lu la neex neex ko waaye lu la naqari naqari ko mu ne ah doom juum ngeen ah loolu du xarit sa jëf mooy sa xarit daal na doom sa jëf sa xarit buñ la yóbboo ci armée yi ba denc la sa xarit mooy njëkk a jóg buñ la ñaanale ba noppi mooy njëkk a jóg woon la ginnaaw waaye doom nee na sa jëf jooju nga doon jëf mooy sa xarit moo lay seede ci biir bàmmeel bu dee lu baax la moo lay seede waaye bu dee safaan ba it loolu moo lay seede kon ñaari xew-xew yi am muy bii ak bi ci ginnaaw man la ma cee jàngee mooy lu waay def sa bopp rek jëf jël la rek te lu waaye jëf-jëf yaa ko moom kon nag ñu ngi yemandi foofu kàddu yi bu baax di sant di nuyu sama jëwriñ yi ci ginnaaw ñi ma bokkal Serigne Touba Khadim Rasoul nga xam ne ñoom ñi ñaawluñ dara lépp dañ ko war rafetal ñëpp noonu lañ ma jàppee waa koñ bi yëpp oustaz Jaram yi bis bu ma am moom da ciy taxaw def ci kéem kàttanam ak waa télé bii mu àndal ñoom ñëpp kon ñu leen di ñaanal ngeen yokk te yàgg ci wér ba fépp fu ngeen bëgg a yegg rek sa borom leen fa ci kàttanam ak ak man dem barke sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall barke maam El Hadj Malick wala ma wala kaana tamam وخلقه لم ينم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه حر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن صاحب الحتمية والكتمية أبي الحباس أحمد بن محمد الزالمي التجاني وعن جميع أصحابه ومقدماته وأحبابه أجمعين أما بعد mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sant xam naa kàddu yi mënal naa ñàkk sax ndax li fi matal na wax lépp wax nan ko li fi matal na lépp jàllale nan ko waaye dañ ne taraanga kenn du ko delloo te mbooleem ku nekk ci jataay bi buñ la joxoon paral yaakaar naa boo waxee rek dina mën a yóbbaale ñépp rek ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Serigne Babacar Sy ak ñi àndal ñépp ak njabootu Seydil Hadji Malick yépp di si teg ki doon def waxtaan yi di Oustaz Babacar Diarra di ko wax ne ko kontaan nan baax a baax si thème bi mu xam naa leen ne yoon yëmut si benn ak ni situation bi demee rek waaye nag ki doon waxtaane Seydi Mouhamadou Mansour Bal Xawmi di sëriñu mag ñi yaakaar naa boo fi doon waxtaane fii ba suba kenn du doyal kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñun nag sunu sant am na commencement waaye amul yem yaakaar naa oustaz Ibrahima Diarra bu fekkee xam-xam suñu borom dénk na ko ko waaye na lépp rek da koo jël def boppam ab taalibe te taalibe nag sala ñëpp di rawe ñun nag ñoo koy sant di ko gërëm di wax ne kontaan nan si lii mu taxawal yal yàlla def mu koy taxawal ay ati ak mu ñëw rek dàq at mi passé lii ñu ko defal teew fi suñu jëmm mën naa ne lu ñu koy fay ndax li arab wax de kamaata diinu du daanu nit ku si nekk li nga leen lan lay fay te yaakaar naa semaine si ginnaaw rek la bàyyi itteem lépp bàyyi ay nelawam bàyyi soxnaam bàyyi itteem lépp dox ay kilomètre yi kilomètre fekk ñu ko fan dëkk di Medina Sarr ñu doon nii te bu ko neexan mu ne fii leen xamante bi yem fii waaye dafa bàyyi itteem lépp daal di dagg taam lépp ñoo fekk foofa comme ñun lépp lu am ci suñu temps jox ko ko rek dañ koy jéem a fay waaye mënuñu koo fay segam ñu yemale foofu kàddu yi rek jox bi mu santante gën a dénk tamit jeunesse bi ndax jeunesse bi moom jar nañoo dénk fii réew mi toll li al oustaz waxam rek kon ñoo ngi yemale foofu suñu kàddu sëriñ bi ñaan ñu teqale koo teqale koo bu du teqale koo ba déwén incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi nuyu sunu mbokku taalibe yi ñu fekk ci barab bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay di nuyu bi di ko ziar bu baax a baax a baax ci teewaayam. di rafetlu jotaay bi di ko tàmbali ba fii ñu yegg si waaye di tàmbali suñu nuyoo ci Oustaz Diarra mi nga xamante ni taxawaayam ci gox bi kenn ku nekk si mën na koo seede ndax lii ñu fi dajale rek firnde la si ñu ko ciy sant bu baax di ko ci ñaanal suñu borom gën koo dëgëral ba mu yàgg koo def te ñu yàgg koo ànd ak moom di sant it mbokk yi nga xamante ni bàyyi nañ seen yitte yëpp ñëw teew moom ci jotaay bi gunge ko ci di ñaan li nga xamante ni moo ñu fi dajale mbooleem yiw biñ ci am yàlla nañu ko suñu borom fulal defal ñu suñu xees ñu ngi jot di ko sant bu baax a baax a baax nag te leen koy gën a dénkaat rek ngeen gën koo ñaanal te gën koo taxaw ndax lii mënuñu koo ñàkk képp ku ko defit jàpp nañu ñun nga koy defal te comme ko ñun mënuñu koo defal suñu bopp moom bu ñu ko deflee rek ak sant lay doon ak gërëm lañ koy doon koo xam dañ ko koy ameel ñi ngi sant ñëpp nag di wax ni kàddu yi moom di ko yëkkat ci mbooloo daanaka baaxoo wuñ ko def waaye nag ndigal moom jëfe rek lañ ci mën ñi ngi sant ko mbokk taaliba yëpp di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di rafet yi jotaay bu baax a baax a baax a baax di ñaan ñu yàgg koo teewee te lépp loo xamante ni wàcc na bi siiw rek suñu borom ful ko ba defal ñu si lu kay suñu jot ñu ngi koy ñaanal ñëpp di jox wàcc waay ñëpp nag jërë ngeen jëf. wala moom moom Touba yal na yàlla gën a dëgëral leen yal na yàlla gën a fa a allahu di nuyu soxna Ami Ndiaye dara bi nga xam tey fa tabaraka allahu bis bi di ko ñaanal yéen yàlla gën a guddal faram yéen yàlla sàmm ko nit ku baax ndax nit ki bu ne baax na na mbokk yi wax ko sànq magam ñëw na fii ni ma santal moo ko gërëmul moo loo xam ni rakk war na ko defal mag wala doom war na ko defal pap wala koy defal kon yal na yàlla defal la car yal na yàlla dëgëral la kon ñu kii jëmm ju baax man damaa të te ñu të rek lay àndal damaa lëj ñu lëj rek lay àndal mais cas bu ma am dama koy woo maître mun ma naam ma ne ko am na sama xarit boo xam ne lii daal na ko danaan ma rek jox ma numéro wala wax ma fan fekk billaahi te du ci laaj dara su ko neexoon mun ma da may yox ma doo ko déplacé mais damay am cas rek woo ko téléphone ne ko maître mu ma la mu ne ko maître man de am naa sama mbokk boo xam ne lii ak lii te téye nañ ko police mun ma jox ma jox ma numéro wala fexeel nu ma ko jotee danoon lay toppee kaa bi ba fi bu bujjee jékki-jékki woo ma ni ma ma ne ko tribunal Guédiawaye la war a nekk mun ma suba dinaa xëy fekk ko fa kon dama koy sant dama koy gërëm te xam ñu mel nii nag daa daa wax ci réew mi waaw mais ba nanguwul xarit yu mel nii waaw am xarit yu mel nii dafa wóor ci réew mi waaw kon fa tabarakallahu met yal na yàlla gën a guddal sa fan nekk ci waa Pastef fa tabarakallahu bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon président Ousmane Sonko kon fa tabarakallahu yal na yàlla dëgëral kon jox rek mu ndax bëggoon naa mu teel a ñëw mais dafa demoon liggéey xam nga liggéeyam rek moo ko doon may permettre yenn yi waaye nit ku disponible la nit ku baax la kon maître bismillah asalaamaaleykum Euh, maa ngi nuyu mbokki jullit di teew yi fii yëpp euh, di la remercier yow Iba sama rakk bu baax nga macha allah di nuyu nag sëriñ bi sëñ Babacar Jara moom aussi mu nekk sama rakk bu baax ñu bokk euh, fu ñu yaroo daanaka waaw bokk suñu dagana dokk daanaka benn famille suñu waajur yi doon ànd moom aussi mu yaroo fu baax macha allah nekk nit ku bëgg a xam-xam. waaw xam-xam rek moo ko yitteel bi mu ko xa en tout cas bi mu ko ràññee ba léegi si wut xam-xam laa ko xàmmee macha allah te si la nekk ba léegi yàlla na si yàlla saxal yàlla si yàlla saxal saxal si sa njaboot ak saxal si képp koo ko ne waaw moo tax bi moo ko waxee Iba ni ma dafa am benn tàkkusaanu sëñ Mansour ma ni loolu moom ak lu mu mënti def incha allah dinaa fexe ba teewee waaw ndax ku la woo si jaamu yàlla moom si ngëneel rek la la woo te ñun ñëpp nit ku baax koo gis ngëneel la war a euh, euh, def mu doon sàkku tem saa yu yeewoo moo tax euh, bi may ñëw Ibba mi may remercier ma ni ko nga may remercier parce que li nga may invité sama intérêt waaw sama intérêt parce que ngëneel rek laa fi jëlee voilà te bi ma ñëwee aussi ak situation bi ni muy xat-xat yëpp alhamdulilahi rabbil aliman alamin dégg naa fi et jàng naa fi la nga xam ni ëllëg mën na ma jariñ te li ñuy def nii dafa bokk ci éducation te sëñ bi wax na ko léegi askan tànk amul éducation fu mu war a yegg du fa yegg donc euh, li ngay def nii yow yaa ngi participer ci éducation nit ñi nit ñi foog ñu yar leen waaw su ñuy leen yarul rek wala suñu amul yar du ñu mën a jëriñ seen bopp du ñu mën a jëriñ réew mi waaw moo tax li ngay def nii yàlla na si yàlla jàppale yàlla musal la si seytaane yàlla may la gudd fan ak wér waaw yokk sa ay man man yokk sa ay man man musal la si seytaane làq la fu yàq agul ba sa yéene bi nga am ngir si li nga yëngatu si diine ji ak yéene bi nga am si réew mi yàlla yàlla yàlla jàppale la

waaw kay jërë ngeen jëf sëriñ Moussa man maa bëggoon a bàyyi. waaw. waaja daaneel ma gërëm la sant la mooy boroom xam-xam nga nga mun koo bàyyi nekk ma modérateur programme bi kon lu yeneen bi ne anzuru naa sa manaazilakum yaa ngi ciy dox ñu ngi lay gërëm. di la sant ndax loolu yombul tabaarakallaahu beneen bis topp oustaz Babacar Jara lu tax moom ma gën koo bëgg dañoo xaw a niroo jikko mooy bëgguñu ko ñu yem waa jamono ji nag soo xawee soo amee sa fulla ak sa fayda dafa am ful lay dëkkal te jamono ji ku amul fulla ak fayda ñu foyee la ñu foyee la lancé na message nag bu am solo si ngoon loolu laa doon waxtaane man ma nag sañ naa koo wax ma ne ñun suñu bopp ak suñu tariqa yi nañ defaraat suñu toogaay li nga lu mu wax ni lu muy wax ni message bi mu jàllale alaaji Abdou moo ko bind ci xasidaam ba yéen waa nguur gi dajaloo leen ngeen toog ak sëriñ si ngeen waxtaan ni ngeen trouver solution pour réew mi teguwaat ci yoon démb barki ki maa ngi koy wax fële sa géej waaye Abdou Aziz Diop moo ñu toog mën na leen sëriñ si sëriñ seex li la daan wax mujj gi mu bàyyi fa wax ji dam tëju li des ba jox ko yàlla. pourtant lu mu fi ñaari message yu mu fi jàllale fan yëpp moom la sëñ si moom Mansour di wax di euh, di jàllale faaw ñu am kilifa. fan yee passé maa ngi la seetaan Malikia ndax ñun malika luñ am wala asfiyaay duñ ko setaan ñu ngi lay suivre lu ma gën a neex mooy say waxtaan xooloo ku mu neex ak ku mu naqari da ngay wax lu yàlla wax te nag jamono jooju nag moom moom la gaa yi jël teggi teg fële ba ci télé yi sax ngeen baal ma ndax su mekkar ah ci caméra lay waxee am na ustaas yu bari dañuy wax di fire aaya bi seen intérêt ñi leen di dimbali ci biti bari na ci lu ma gën a neex sa diggante ak sa rakk mooy daf la tiitaroo loolu ma gën a neex ci Oustaz Diarra daf la tiitaroo saa su nekk di waxtaan ci yow yu baree bare même su la invité sax dañuy gis mu koy partagé nit ñi te loolu bokk na ci lu tax ma fonk ko ci loolu ci la bokk nit ki ka nga bokkal da nga koy fonk ba ci programme bi dama ne ko oustaz yi bari nañu mais kala yàlla boolal borom xam-xam jox ko ko mu doxal ko ka ñëw la ca cëram mu jël ko ndax jamono soo bëggee ñëpp kontaan di nga lor ñu bari jamono biñ toll nii soo bëggee ñëpp kontaan di nga lor ñu bari faa ñu delluwaat te dañ nga message bu mu lancé ñunu jeunes yi nañ ci taxaw ku nekk nag am naka nga faral waaye nag balaa ngaa faral kenn xubbul watan minal imaan na la sa réew ñor réew nag doo ci xaar état doo ca xaar dara yow yaa ko war a defaral sa bopp mooy soo rombee mbuus mii di war a gàjju sa euh, Babacar Diarra bii bul xaar ni maire bi la war jël ko nga def fee nga am ci tiyaaba mais ñun ñëpp loo wax ñu ne état loo wax ñu ne état bi walla maire bi te fekk ne yow yaay sa état bopp yaay sa maire bopp ndax tes citoyen citoyen quelqu'un euh, qui est citoyen dafa war a xam lan mooy si citoyen mooy réew mi du ma xaar Macky Sall defar ko man ci man la war a jiitu defar sama jikko mais léegi man lu ma gën a tiit da am doom ji ndaw amagoon un an commencé di saaga te si mbedd bi la ko jële fu ñu waroon a yaree ah, fu ñu waroon a yaree nit ña lañ bàyyi mooy daara ja daara ja lañ jël suufeel leen mu neex mu naqari fii ba Sénégal lay gën a suufee feeg jëluñu mag ñi def leen ay ressource ñu teg ci teguwaay ba ku nekk nag ka nga féete nga jox kee xam te ni moom féete woo su nga jox ko cëram ñu ànd moo tax message bi nga lancé ñun la waroon waaye tamit ku am kudd doo lakk message bi jàll na man de xam ku ko déggul waaye dégg naa te incha allah dinaa ci gën a bàyyi xel beneen bi moo ci waxaat mooy tey waxtaanoo ndax xam nañ la bu baax xam nañ sa waxtaan xam nañ sa pédagogie waxtaan ndax dañ lay déglu xëy na nag ñu affaire bi tëddee la moo tax bi ma ñëwee automatiquement lu ma njëkk a laajte laajal Maodo Malick mii ndax oustaz Babacar waxtaan na ma na leen li ngeen fi def yëpp amul njëriñ message bi mu war a jàllale ngeen war a déglu kon nag ñu ngi lay tiitaroo ñu ngi lay sagoo ñu ngi lay gërëm bu baax beneen bu topp carte bi ma la jox sëriñ Alioune Sall bu maam Safiyatu si bi maam Seydi El Hadji Malick moo ko jur mu nekk sa jàmmal daal fa liggéey liggéey bu mucc ayib ci daawaati géej la génn àdduna ci weeru koor gi ay njabootam des ci ku mel ni sëriñ Ahmadine Sall ak sëriñ Babacar sàll ak seen rak ak seen waajur programme bi nag sëriñ Abdou moo daan taxawel boppam ren nag sëriñ Babacar Sy Mansour moo joxewaat ndigal bi gars yi di ko def le 24 ak le 25 pour ñëpp la carte yi même Azou Diop yaa ko gis mu yor ci moom tamit ñoom la koy jàllalee. te tamit lu tax man ñun ñu gën cee sawar mooy ñu ko yor nii ay ndaw lañu ay ndaw lañu ndax seen baay a ko yoroon génn àdduna ñoom ñu nekk ñu toll ñun jamono kon ñoo war a mën a lancer message bi lu may ñaan yàlla mbooleem ku nekk ci tant bi fekkee ni am ngeen jot sa jour baa ñëpp ñu dem fa sagal leen ndax sagal kër gi la ndax ci kër gi lañu ndax sànq ba nga koy wax maytu leen ñu jigéen ñu jur moom maam Safiyatu si moo jur sëriñ Alioune Sall maam Safiyatu si sëriñ Seydi Ahmed si bu taawu Seydi El Hadji Malick moo ko jur moom may def programme bi mu ren mu nekk si ñaar fukki at ak juróom-ñaar muy vingt sept vingt septième édition ñu ngi ciy woo ñëpp incha allahu taala su ko defee maa ngi gërëm ñëpp di nuyu sama mbokk yële bu baax di leen ziyaara di nuyu sëriñ bi doon wax kon di nuyu tabaarakallahu eh, nabiyen yi ñoom teg rasulullah sallallahu alayhi ñoo ñu am mbégte waaye su ma soñoon dinne mag mooy baay te seen bàyyi su toogoon fii moom mooy ñaan kon nag du question affaire sëriñ la ñaan gi damaa bëgg nga def ko ndax mu dal ñëpp ndax yow ji lay xoolee yow yaay suñu baay jamono jun toll nii ndax yow ak jara jara moom mënul am lu la ëpp su la fi bàyyee tamit seeti keneen yow la war a jàpp su la jàppee yow la war a jàpp su la jàpp yow la war a jàpp kon nag mbir yaa ngi say loxo joxal ñaan ñu ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kenn ku ne xam ne ni jot ñàkk na lool waaye dangaa sacrifié wu ngir jëmm ji yal na yàlla xëy na Cheikh Mouhamadou Moustapha yooyu ñu ngi kontaan bu baax sa wóolu rek jara yëpp nañ ko ndax dañuy wax ni génn goro gudd na waaye loo ca laal borom xam ko sëñ Babacar Si kontaan nañ ci sa teewaay kontaan ci say bu baax ko sant di ko ñaanal te di ko encouragé ndax nee naa ko bi bu ma fiy dugg fi bàyyi fekk fi rakk bàyyi fekk fi mag fekk fi nijaay man doomu maa xuus ci géew gi tey bare bare dañ lay jaawaleeg man sax ndax barki démb bi mu demee dëkku ñoom sëñ Moustapha bi li ma jot ci appel xaw ma mu toll daan jara yow yaa ñëw suñu dëkk bi yaa ñëw man leen déet du man de beneen jara bi la léeg-léeg nit sax woo ma ni ma maa la doon dégg géej waay bu sax jara bi man leen déet jara bu mag bi la man maay jara bu ndaw bi moo tax loolu ñoo koy encouragé bu baax a baax ah ah waaw moom kay sama tur kay moom mi ngi ci récolté lu waaye nit moom ala kulli xaalim soo xasee ba tegu ci yoon rek loo jël jële rek sa wërsëg la nga defee li ma koy soññ chaque jour rek mooy gën a la yokk waaw gën a la yokk àdduna bi gën a la gëm sa bopp gën a la xam ki nga doon bul xool ku lay apprécier ak ku la dul apprécier ndax wasawi ahlal ghina wal faxra fi kawaman ataaw ya zumm wa man xat kaa mbir rika di nuyu nag waa sécurité bi ñoom it rafet rafetlu taxawaay bi bu baax a baax ndax boobu ba léegi yéen a fi bàyyi seen itte yëpp macha allah. Eh, nekk ci ànd ak kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla rek liggéey bi ngeen di liggéeyal xadra bi yàlla bu mu niim yal na leen barke ci seen métier defal leen barke ci xadra damay faral di ne xadra bi ki ci ëpp chance mooy kuy liggéey ba wàcc door a ci xadra bi ndax sama Cheikh El dafa wax am na ci bàkkaar yoo xam ne julli woor ak natt asakaak dem màkk yépp du tax mu far liggéey lu lew dunde ko dunde ko sa njaboot rek mooy far bàkkaar boobu kon ñu ngi ñaanal rek yal na yàlla barkeel Oustaz Moussa Diouf mii nag moom bàyyam man mii la ko dogal sama loxo maa ngi indi tuyaabam daanaka bokk naa ci ñi ko yee ci njàng waaye léegi daa bokkal beru am jabar bàyyi ma ba pare ma may ko sama jarbaat loolu yombul ba pare mu ber boppam moom it ñoo koy ñaanal ñu ngi yëg taxawaay bi nga xam ne yéen a koy def ci Pikine di leeral diine yi bu baax di it man su ma toogee ñu ni ma Oustaz Diarra moo doon waxtaan fële wala Oustaz Moussa Diop moo doon waxtaan fële daanaka dama ko dama ci tiitalu ndax dama naan looraan def ba am rakk yu la ko dàq loolu sant yàlla rek kon yal na yàlla sàmbaleen bu defee rek ñu jàng fatiha salaatul fatiha ñaanal wuri ma tey yal na yàlla wéral ko yëral njabootam ñaanal moodo faatu fut bëri moo ko jóge ba tuwaam naama faat jàll ñun ñëpp yal na yàlla saafara leen ci barke yéen bi salaa sallam fatiha